Euh, foofu la nekk indi fi koo xam ne que wax dëgg yàlla yeex nañ koo invité tegtal ngeen di wax ndax bi ñu ko jëlee tegtal ak léegi euh, taxu ko yàgg ak léegi mais bari nay émission yu muy def di nit ñi di ci jariñu di ci gis seen bopp mu ànd ak yërmande ci poosu nit ñi ànd ak yërmande ci jàngoro yi nit ñi ànd ak naqari deret nag ci ku nanguwul yoon ndax du fi nekk di maslaa du fi nekk di tirise ndax nag fajam ak ñaanam dafay àgg ci ba bu war laa nemmeeku moom moo lay nemmeekul boppam di la woo di la soññ mais boo ko bëggee jàppee intérêt boppam rek mu ne la fa ñukk ne yàq bu naqari ndax nag noonu mu yoroo noonu la amee fulla nag kooko di kan du nangu sax nga naan sëriñ Aliou Dieye Aliou Dieye rek Aliou Dieye nga xam ne que euh, mii ne na Tiwaawoon pël ba mu dëgër mu doon ingénieur yeneen doon métier mag mel noonu lii yàlla baaxee ko ko muy gëstu ci alxuraan doyloo ko te alxuraan lekk ci nekk ci lépp moo tax bu ma déggee konaan sa gaay yeeg sa gaay man ñi ma yor ñi may invité alxuraan laay kii ci man ci boppam ne naan musumaa gis ba ma masee gis sëriñ bu ne sàngara lay seete damaa tiit ndax man sama bopp musumaa gis yu mel noonu kon àndumaa ak xërëm kat àndumaa ak njabar kat àndumaa kuy defi petaaw ak yu ruus ak yooyu yëpp sama yoon nekku ci man sëriñ buy laal la asamaan seeg suuf si soxalu ma jàngoro mu wér soxla mu faju boo ma man nga boo mënul ku ku mënul mu jàngi lii mooy Tektal TV mooy suñ secret mooy suñ doole duñ ci kaf duñ ci ree résultat rek Aliou Dieye ba ne ko dafa oyof ba du nangu sëñ Aliou Dieye Aliou rek la doon ingénieur doon ko xam ne que nee na lépp nga ci alxuraan te doy loon alxuraan mhm. te muy def ay résultat may teg bët am ñu ma jege di teg bët am ñu ma ñu jege ñu ma jege di teg bët kon kii moom dama ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér bu may def émission nekk en l'aise rek ca ka may defal émission la ndax man coow li coow li résultat mooy sama xarit Aliou Dieye yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyu àdduna wërngal këpp bi lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani ma allamtana innaka anta al alimu al hakim wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim xasbuna allahu wa ni'mal wakil wa tawakkal ala xay alladi laa yamuut wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu inna allaha baaligu amri qad jaala allahu li kulli cheyin qadra subhanaka allahu laa maljaa wa laa manjaa illaa ilayhi huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa alaalimu alxaybi walshahada huwa arrahmaanu rahim wallahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquduusu assalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabaaru almutakabbir subhaana allahi amma yushrikuun huwa allahu alxaalihu albaarihu almusawiru lahu alasmaau alxusna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al aziz al hakim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uliq walxaatimi lima sabaxa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim rabbi gfir li wa liwalidaya wa lilmuminina yowma yaqumu alxisaab assalaamu aleykum wa rahma wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Cheikh waaw ñoo ngi lay nuyu di la sant waaw yow yaa ngi jël sëriñ bëri bëgg ma koo jox waaw bal ma jox la pare Aliou waaw xëy jox si Aliou man moom day wax Cheikh rek. waaw mos duggee damay dóor. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay hmm. nuyu di nuyu sa équipe. di rafetlu seen di rafetlu seen liggéey docteur Wade ñoom Xarmat ñoom Baye Massamba Diop ñoom Petit Sow. waaw ñoom sëñ Fallou Mbacke Diop. waaw soxna May Diop Zeynab. waaw euh, ay liggéeykat yu sell. Hmm. Euh, ñu fiy ñëw toujours di fi fekk dëgg. Hmm. di ci dox si dëgg. di ñaan borom bi tabaraka wa taala mi nga xamante ni moo na mën a dimbali ci dëgg yal nañu yàlla dimbali ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon mu ngi noonu mm. ñu nar fee commencé waat ci bisimilah rahmaan rahim. Mm. yal na yàlla def ñu àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin macha allah jërëjëf jërëjëf mbokk yi seetaan Tektal TV ngeen abonné Tektal TV abonné bi nag mooy bés fu ruus bi bi émission bu ñëw nga am ko ñun nag kum neex nga abonné kum neex bul abonné ndax lan ñi naan Tektal moom. même dañuy dugg YouTube rek bind Tektal TV xam ne fii mooy mbir bu wóor bi beneen bi tamit njariñ lañ yor boo xam ne que moom ci ànd ak benn masla bopp bi ay aboneel ay nangam déedéet ñun am na ñu pare pour jàpp ne abonné bu doon lu ñuy fay la sax ñuy fay pour def ko Tektal TV seen la boo xam ne que seenu àddina bi la diaspora bi defal ko seen yëfu bopp réew mi di ko xëccook ñoom kon Tektal TV moom njariñ rek bindal àll yu Dieye bu ci juum nag juum ci

Euh, di ki nga xam nag euh, ci alxuraan la léppam euh, nga diis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp Aliou Dieye mhm. balaa ñuy sori mhm. borom loxo bu njàng bii nga xam ne ko wuu xool ko sax day xaw a jafe boobu loolu wax ci moom loxo bi loo ci wax borom loxo bi. xam naa xam naa sama xam naa sama grand dina la retaan ba sonn. ñoo bokk ñoo bokk ak baay ma ne moom. kan galaay <laughs> di du galaay galaay <laughs> xam naa moom tamit continué réew ma sonn. Eh. <laughs> waaw sunu mag la sunu mag la. yàlla dafa def temps yi la passé. Mm-hmm. mu woo mu ni ma euh, xaaral ma envoyé la quelques photos sama loxo bi daal dañ ko programmé pour dagg ko. sans baram bi sans baram bi. dañ ko programmé pour dagg ko. ma ko mais loolu moom doy na waar waaw envoyé ma ko ma xool ko. mu envoyé ma photo yi mais man photo yi même j'avais du pour ma xool photo yi. Mm. vraiment c'était très avancé. oui oui oui et mu ma oo côté mu ni ma lañ ko programmé pour dagg ko. après 15 jours ah, yi xamante ni moom wax dëgg yàlla dégguma ko waxuma ko quoi moom ma ko doon doog a mm-hmm. ma ne ko dagg ko mu ne ma waaw ma ne ko dagg bi lan la pour lan la mu ne ma daal affaire bi nanguwul wér. médecin yi daal nee nañ amuñu si pexe daal bu mu ñëwaatee daal dañ koy dagg. ma ne ko kenn du ko dagg. kenn du ko dagg bu neexee bi kenn du ko dagg. bay moom mu may dégg. seede yàlla bay ci tànk. kenn du ko dagg laa ko wax parce que bi ma xoolee photo yi rek am naa benn lecture bu ma ci def ba nga xamante ni gis naa ni. Hmm. c'est un peu mystique. mystique laa ci gis. Afrique la nekk de. ma ne ko nag dafa xaw a niroo ak man style aussi moom. xawul hmm. gëm yu mel noonu daal. Hmm. bon ma ne ko maam yu ma ko jox ni ko mu def ko. ma ne ko nag dinaa la ko commencer léegi. Hmm. mais bu neex yàlla dagg moom du ci am. dagg du ci am. lañ ko joxoon rendez-vous leen di la fa dem. Hmm. bi mu demee mu owaat ma fekk à à à l'intermédiaire ñu ngi doon jokkoo. Hmm. mais lundi daal bi mu demee ba ñu xool ko ñu ne ko di jarul dagg. jarul dagg waaw jarul dagg. léegi li ci des ak li fi nekk mooy dañuy nekk di ko defal ko rajo ba xoolaat ko gi mel noonu mais lii moom jaratu ko. moom aussi tamit bon mu ooma vraiment avec euh, kii ni ma daal lii daal mu yëgatuma ci dara. waaw boo gisee daal léegi bon muy commencé cicatriser yu mel noonu mais nu mu doon def tàng ci biir di metti di hmm. di avancer rek di di joxe dëtt di hmm. dem rek defatu ko moo tax mu ne woon après dinaa ko dugal ci kon ku lu mel nii daal nga jaaxal tamit parfois tegtal a ngi nii dalu jéye ngi nii ñun daal liñ bëgg mm. mooy ku am jàngoro ak jaaxle ak jommi ak lu la jommal mm-hmm. euh, nga mën a ji gis lu kawe njortu mm-hmm. ci seetaan bi ngay seetaan yaakaar bañ a tas mm-hmm. ndax daleen di gëm yàlla yàllaa ngi fépp de euh, léeg-léeg nag wàllum xaar xéwal nii ngay jàmbat yaakaar ne yàlla da laa fàtte fàttewu la de bisu dëdd bu jotee xam nga de foo mën di nekk dina la fekk noonu nag fu mu la war a fekk xéwal dina la fekk yow li la war rek def ko te gëm yàlla ba léegi sëñ Cheikh sëñ Cheikh dagguma la mais ba léegi maag moom gis gisante guñu mooy li ma lu waxoon si première émission bi rek mooy distance bi waaw problème mu liggéey hmm. jarul ñu lay teg jarul ngay ñëw ba egsi hmm. liggéey dañ laa liggéey mais lu am solo moo tax surtout ma bëggoon mu passé mooy que ni hmm. nit ki nga xamante ni da nga jóg pour def lu bon na nga bàyyi xel sa bopp na nga bàyyi xel sa bopp parce que lii bu dogee moom loolu laa ko ñu wax gis bu nga xamante def nañ li ñuy def ba affaire bi day dellu ci ki ko defoon day dellu ci ki ko defoon ko defoon te kooku nekkul man maa ko tëral mbiru mm. suñu borom la noonu la tëddee ni nga mën a def lu bon da ngay xalaat mm. heure bu nga xamante ni def nga nit lu bon da ngaa kort nit da ngaa sëf nit mm. da njibar nit bu dogee ci yow la jëm directement ci yow la jëm waaw na nga ko mën a dékku nag loolu moo ci am solo bu fekkee ki def liggéey bi dee na day dem ci bu fekkee ki def liggéey de dee na moom euh, lu ñu koy fay moo fa nekk rek bàkkaar waaw bakkaar bakkaar la ci am mais bu nekkee mu ngi dund moom na préparé ci moom la jëm moo tax def lu bon daal baaxul man loolu laa ci jublu pour wane bi daal def lu bon baaxul def lu baax moo am solo nit nga yéene nit ñi lu baax mm-hmm. di dox ci lu baax di def lu baax bu ko mm-hmm. defee daal yàlla mën na la mën a mën a yëwndal say mbir man daal surtout kuy dem di liggéey nit mm-hmm. ak sëriñ bay liggéey nit ñoom ñaar ñëpp nañ xool ne am na problème mu bu dee mën na ci dara temps boobu muy liggéey na dem wuti ko xaalis moom comme xaalis lay wut waa ji liggéeylu tamit ka ngay liggéey moom mi ngi lay déranger fexeel noo ko rawee rek fexeel ko rawee rek te ànd ak gëm yàlla gis nga yàlla doyal kenn am noonam de yéen nii moom gis nga ko yàlla aaral boppam boo ko jéemee tooxal mën nga ko tardel tuuti mais boo ko tardelee yow doo dem de moom mooy loolu ngeen bàyyi xel bu baax a baax gëm yàlla def dëgg jëm dëgg sëñ Aliou Dieng daal kon borom loxo bi incha allah dina am jàmm. waaw waaw jàmm rek moo ci am. léegi balaa ñuy sori. Mhm. Euh, kii nii. Mhm. gis nga ko. gis naa ko ma tegal la ko nga wax ñu ñoo xool kii. Mhm. ñëw lu mu tudd encore euh, kon ñu ngi toog nii ak euh, doon ku ñu doon ku ñu ñëwal la tey suba. ne daal pendant quelques minutes mais après boo ma paree wax dëgg yàlla ma jóg man daal lu ma doon sentir sama yaram bi ay années des années et des années tey maa ngi nii toog wax dëgg yàlla dara dara dara dara sentiratuma ko vraiment comme ni nga waxee man damay confirmer jooni jooni bi ñu wax wax dëgg yàlla man dama parce que depuis ma croiser dëgg yàlla lu ne def naa ko lu ne jéem naa ko mais en quelques minutes wax dëgg yàlla ma sentiratuma dara ci doole tey tey tey tey laa koy doon. jërëjëf jërëjëf Ibrahima kii maa ngi ko doo gis tey c'est la première fois ma gis ko lu mu woo téléphone rek amoon yéene pour ñëw xam nga mais tey laa koy a teg bët maa ngi nii ak moom tey laa koy a teg bët mais lii boo gisee ñun ñu koy def benn rek la pour que ñi nga xamante ni dañuy bugg di faj ñu ñu attaquer les bonnes portes ñu doon dem vers les les comment dire encore les bonnes directions ñi nga xamante ni dañoo nekk si dëkk bi def ñu fi dara lu lu bon. di mbubboo sëriñ te duñu dara wax ma nag mënu nekk ñëpp mais dama wax ñi nga xamante donc kuy def lu baax nag bu ci gis sa bopp ci li may wax ñuy def lu bon moo tax may wax kuy def lu baax aussi bu ci gis sa bopp wax ji moom loolu la mais kuy def lu bon gis sa bopp doyal man li may wax ne bu ma ko ragal moom kuy toog fii di génnee jinne yi nekk Amérique génnee jinne yi nekk Espagne ak kuy toog fii nit ñëw ma teg lii di nekk sa yaram di daw gauche daw droite la koy wax di ko yëg muy muy muy muy def li muy def luy toog fii nit ñëw fi nga génne jinne ji mu dugaat génne jinne ji mu dugaat am na ñu nga téye ko rey koog lii rey koog lii nit taxul may nekk di calculer quoi calculer moom pour ay nit mel noonu du ma fiy daj rek yàlla la loolu laa loolu laa daal objectif bi li tax ñu def lii te nag nekkul kii doomu de <laughs> wax dëgg yàlla ñu bare bare bare dañ fi jaar ñoo xamante ni lii lañ leen defal léegi léegi ñu pare ci léegi léegi ci kattanu borom bi tabaraka wa taala mais jëluñu woon suñu temps pour def ay kii yu mel nii mais parfois sax da ngay gis yi ñuy def ci biir tegtal nit ñi mën a ko gis sax yaakaar ni kii la alors que lii chaque jour si lañ ku ñëw fii rek bu neexee borom bi tabaraka wa taala am na ku fi jo tànk bii la indaale dafa pare dafa noonu nekk fi di ko liste sax coono tànkam bii la indaale nii xawma depuis combien d'années mu ngi ci ak moom waajuru benn benn benn benn benn client euh, mais laata muy génn fii la wax doom ji ne ko man dama doon jéggee yotuma te tànk bi lu nekk wax nañ ko si ma ne ko hmm. baa mosoo si def intervention mu ne mosuma si def intervention ma ne ko jeex na hmm. day tàggoo ko car fii hmm. ko ci ko ah ma yëg naa mu ngi mënu ma wax mu ngi daw de fii laa ko teg mu ànd ak jëkkëram mu ne ko teg ko nii ma teg sama jaaro ci kaw oom mu jékki-jékki ba si yàgg mu ne ko ah mu ngi daw de loo yëg mu ne ma ah kay mu ngi daw de mu ngi bougé de ma ne ko baax génnul fii dafa ji whatsapp whatsapp bi mu envoyé doom ji doom ji envoyé na ko envoyé na ko Cheikh Talif wax ko ni ko sama yaay. mosuma gis doom ji mosuma gis te loolu sax moom envoyé directement Cheikh dama ko wax rek nii. te am na ñaar ñu fi ñëw diggante deux jours yi. Mm. ñu nga xamante ni estomac lay wax. Mm. mën leen dara. Mm. man tubaab bi jaaxalu ma. est yi yu bëre yi ñuy wax nit ñi c' est que loolu lañ gis parce que jine bi moo toog ci estomac bi def li muy def. ñoom tamit loolu lañ mën a wax mais bu mais médicament yi lay jox wàññiwul dara loolu moo du dëgg ma jël sama jaaro teg ko fii ci naka bi nii man maa ngi gis na de affaire bi moo affaire bi moo yëg naa mu ngi wàcc de yëg naa mu ngi déplacé wu de mooy ko damante. ba muy génn fii mm-hmm. dañoo toog fii ñu añ korog mooy ki ñu doon añ añandool fii yàlla dégg faatu ki ñu doon añandool fii korog dafa dafa dafa dafa toog muy lekk rek nangul arrêté di lekk rek nangul arrêté non mais affaire dafa jaar man ñetti kudd mosuma ko weesu <laughs> man ñetti kudd mënuma ko weesu mu ne ma te surtout maafe du am téere non man mënuma ko ma ne ko lekk ba suur dafa lekk ba suur naan boisson nen toog fii mm-hmm. dara ma ne ko dara bu ñu paree ñoo toog ma ne ko est ce que yëg ti ma mu yëg ma dara lu yàlla def kat man ci man ci dara innal fadla bi yadillah yutihi man yasha wa maa zi fadlin azim nu ko nee na koy na ko yàlla def te man ci dara fii loolu moo fi nekk loolu mooy dëgg bu nee borom bi tabaraka wa taala ñooy teg jaaro ñuy ràppi ràppi kooku ma ñoom mënuñu dara bu ñu dëgëroon duñ duñu ràppi ràppi moo tax yàlla na yàlla defal la tawfiq defal la wér ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam honnêteté bi nga am nii aussi am na ñoo xam duñ ko am am na ñoo xam ne da nga leen faj loolu foofu la ñu nekk ay laqatoo lu nekk la ñuy def comprendre nga

xam nga pourquoi. Hmm. ku bëggoon jariñ rek nga jariñ nga gis ay ay Sénégal yoo xam dañuy def seen tey ba pare. Hmm. jël benn régime bu ndaw def ko ci internet am na ci droit. Hmm. di ko jaayee di kii ak yooyu. mais yow fa nga defee sa fa nga defee sa tey bii nii. du da ngaa dugg ci ay bibliographie ak ay webographie ba bëgg a dee. mais ñooñu doo leen delloo jukkal. ah moo tax li nga def nii dafa am solo c'est-à-dire que euh, dina tax ay nit ñoom ñu gis ñu xam. nga xam fu ñuy teg seen tànk loolu mooy suñu sëriñ bi nag daf ñoo woon benn daf ñoo woon ni euh, ku bëgg a boyal ab taalam dem ci kër ñu may ko gileet mu indi ko boyal ba pare def la muy def ba pare nit ñi ñëw di ko laaj yow foo boyale te nangu loo fam boyale jugul jugul loolu doomu laa la wax yàlla na yàlla may baax barkeel Euh, kii moom. Mhm. Euh, sa jàllaal bi mu ngi rafet sax moom moom moom foo jaar nu mu noonu. waaw kii. Mhm. daf ma daf ma daf ma bett. Mhm. parce que damaa xëy dëkkee gu ma sax mu oomo ni maa ngi nii egsi ma tegtal ko comme euh, apex ni mu kii noonu rek. mu toog kër gi ma jël ko. bi duggee mu ne ma daal ça fait huit ngi nii li ma topp moom ma topp. expliqué na ko si biir yaram bu diis. yaram buy metti am luy dox ci biir. lu mu dugg mu yàqu ba njàngam dafa yàqu. Mm-hmm. mujj kii yàlla xam ne ni dafa dëgër rek mais mm-hmm. cuuraay la yor du def ay porte à porte. ci ku nga xamante ni je pense bien dem na ba université. Mm-hmm. c'est triste. très difficile. bu mu bu mu ñëwee ma toog moom ma ne ko bu neexee borom bi subhanahu wa li nga yor du génn kër gi. li nga indi noonu li nga ko listé yëpp du génn kër gi. du génn du génn kër gi bu neexee yàlla subhanahu wa taala du génn. parce que li ñuy def ñun. Euh, nekkatuñu fu ñu waxee ay mën na mën nañu mais dañuy wan nit ñi rek pour ñu passer par la bonne porte dafa wuute tamit nag ñu def attention pour bu ma waxee du génn kër gi rek ah. keneen mu am leneen loo xamante ni am na nuance ah, mais moom bi ma ko dégloo mu wax pare dama ne ko du génn kër gi nekkul ñëpp laa koy wax nag bi ma ko waxee loolu mu ma loolu lu muy wundu ma ne ko bu neexee borom bi subhanahu wa li nga fi listé yëpp dara du génn kër gi bu neexee noonu ci ni mu ko expliqué euh, jaaru bi rek lañ ko teg jànguñu dara jaaro bi rek lañ ko teg mm-hmm. à l'espace de matul une minute mu ma daf mel dañ maa déchargé. doo ma teg jaaro teg ma jaaro ma teg ko ma teg ko tuuti. baadoo kii. waaw teg ma jaaro bi teg ma ko mbokk yi seetaan Tektal TV ngeen abonné Tektal TV teg leen ma jaaro bi ñu ngi dindi li tege woon ci man euh, kon kon dinañ gis ñoom beneen vidéo boo xamante ni maa ngi siy génnee jinne jaaro bi jaaro bi laa ko teg mu ba mu daanu jàng ma alxuraan <laughs> am na fu ñu egg ma jàng waaw waaw waaw waaw bi ma li ñu defee doon daal moom mu ngi mu ngi expliquer après li nga xamante ni moo ci xew mais bi ma tegee bi ma tegee jaara bi mu ne ma dafa mel daal dañ maa déchargé lu bëri hmm. léegi nag si laa ko installé mu toog mu am ay ruqya yu ma ko doon defal bi mu pare nag vraiment mu ni ma man tey la ñu doo gisee man ak yow boobu laa doo gisee moom kooku te am na bokk Sénégal la nekk Sénégal la nekk yaakaar naa mu ngi noonu Ibrahima Thiati la tudd Ibrahima Thiati la tudd waaw donc bi mu defee loolu ba pare hmm. après vraiment mu ma ne ko nag damaa bëgg nit ñi nga xamante ni. Mm. à travers Tektal dañuy seetaan et puis tamit bëgg nañu passer par euh, la bonne porte di gis ay nit ñu nga xamante ni war li ñuy def nii man nañ ko. Mm. damaa bëgg nga wax par rapport ak bi nga fi ñëwee. Mm. ak par rapport ak léegi léegi nii bi bi ñu paree lan moo xew. lan moo ko defee nag mu def témoignage boobu. moom la def voilà c'est ça. ah kontaan bu baax a baax euh, Aliou Dieye lii mooy euh, kon numéro yaa ngi noonu ci ecran bi da ngeen jël ko bu baax a baax ñun lii mooy suñ yéene ko am jàngoro ak jommi ak jaaxle lu mu mën di doon rek nga gëm ne euh, booy seetaan tegtal mën nga indi daje ku la ci mënal dara yéen sama yenn contacts yi nga xam ne que nag parfois dama leen envoyé lien émission day ñëw lien bi bu ñëwee bu émission bi bu ko ñu koy dugal ñeneen la ku sama contact yi nekk ci kaw rek laay jël rek xëpp leen lien yi bu la neexee sax bul tontu du question nag sëriñ bu ma la envoyé rek da war a jëflante ak moom de da ngay dégg ko envoyé kii li nag non envoyé wu ko pour nga jëflante moom ci force émission bu bees la contact yi nekk ci kaw laay jël rek xëpp leen ko mu ñëw seetaan nga gis nga ci lu la ci doy baax na lu la ci doyul nag <coughs> nga avance nekk ci leneen mais du question ku ma la envoyé rek mooy war ngaa jëflante ak moom ci force non lien yi ci kaw rek laay def moo tax Tektal TV yéen ñuy seetaan sax lien bu ñëwee di leen tas muy tas ci àddina bi parce que Tektal TV ñun amuñu morom ci domaine bii ku nu ci sóor rek lu ci ëpp da ngay wàccaat déedéet te njëriñ rek moo nu soxal bu baax a baax euh, sëñ Aliou Dieng. Mm-hmm. di nga maanaam sëñ moom dafa modeste bay bañ ki mooy Baye Massamba Diop ko koy liggéey moo nekk nii mooy njool mi. jërëjëf di feeñ. ñun Tektal TV studio soxna May dafa neex nag de. bismillah studio bi mooy loolu de da ngay naan. Mm-hmm. di lekk di ba di di naan yu raar nag ah bisimilah ba nit ñu may gisee may naan nii dun ma ci liggéey foo en direct la de ku ma ci yema liggéey mooy yàq yow yow mën a trop Hmm? nit ak seen ak seen ak seen yombewul noonu de. Hmm? waaw nit moom nit moom sëñ Cheikh. Eh. yow euh, accès bi gën a yomb ci yow yow yaa koy créer sa bopp. te loolu dinañ ci dugg après. waaw mais bu dul moom sëñ Abdou Baaxe di wax loolu la nit ñi dañoo yombal liggéey nit mu jàpp. Hmm. yombul de moo tax ma ne leen ñiy liggéey nit. ñoo la gën a soxla xaalis mu tëli dem leen liggéey ci xaalis. ah moo bu soxla fépp. Euh, Aliou ci biir ñi nga xam ne que. ci yow nee nga dafa am soññee boo bëgg a def. ci domaine bi. Mhm. soññee bi nag man dama ci jël sama wàll. ku mel ni man da ci jël sama wàll. Mhm. nee nga dafa bari sëriñ soo xam ne que. Mhm. dañuy naxaate. dañuy nax nit ñi. te tamit ngeen yeewu. di leen wax tamit yenn sëriñ si nga xam ne que leen indi ay yu ñàng ak yu ñàngal ak yëpp ñuy maas nu ngi naan sëriñ si. billaay ku ci bàyyi ñaan lu wala nga bàyyi faju ba loo dajee baax na boo dajee ku bon nag daje ngaa ku bon boo dajee ku baax daje nga mais ñun moom ay deret ay rey ginaar ak ay rey xar ak rey gëléem ak ñun bañ nañ ko ay deret ak yooyu soxlawuñ ko suñu émission lu ñàng soxlawuñ ko lu rafet te set te dagan te mën a am njëriñ lan soxla ci biir Tektal TV. moo tax boo ma déggee ku naan yoruñu koy xërëm yoruñu koy njabar duñ ànd ak moom duñ ci dem. liñ bëgg lu sel lu dagan booy seetaan Tektal sa ngëm yàlla bu yokkul ba mu wàññeeku. te sama sa jàngoro bu ma nee wér. moo nu gënal. Mhm. kon nag nee nga bëgg nga soññee. Mhm. ci yenn melokaanu yenn sëriñ si nga xam ne que. Mhm. dañuy compliqué lu compliqué wul. di mitti lu mittiwul. di teg nit ñi ay coono yu mën a ñàkk. loolu sama yoon nekk ci même bu ma ci gisaale sama wàll. wax ma bu dee erreur bi dama maa war a yedd yeddaale ma. ndax defar ma tax a jóg bisimilah. waaw sëñ Cheikh loolu dinaa ci sawar trop. parce que farata la ci man ma wax ci. li tax mooy dafa bëri ci am ay ay ay nit yu nga xamante ni tey euh, sëriñ moo te nag dinaa ci joxe benn tekkal. ciy toog fii dinaan te sama responsabilité la aussi. yow la amul keneen sama responsabilité la. Mm-hmm. Mm-hmm. kii toog fii di wax ni def na 32 pays. tegtal rek laa joxe. kii toog fii di wax def na 32 pays te bu ñaanoon benn ñaan sëriñ si yëpp këram la ñuy jubal bu subaa kooku na ko sëriñ na ko na ko ñii ñii ñaanlu ak ñii wut fu ñu fajoo nañ ko moytu. Mm-hmm. baaxul. man mi maa ko yaa ko wax fii voilà hmm. baaxul. mooy que ni gis nga nit. Hmm. da ngay ragal yàlla. Hmm. gis nga gis nga euh, sunu borom. nee na ci alxuraan. wa indahu mafatihul ghaybi laa yaalamuha illa hu wa yaalamu ma fi lbarri walbahr sunu borom nee wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala xabbatin fi zulumati l ard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabi mubin anaam suñu borom nee na boo jëlee garab xob bu fa wadd daanu ci suuf sunu borom nee na man xam naa nam fa daanoo fam nam fa tegoo pepp suuf ci euh, suuf ñi nga xam ñoo gën a lëndëm ci kaw suuf pepp suuf bu déplacé wu xam naa lu tooy fu mu jugee si niveau bu tooy jëm ci niveau bu wow xam naa mu jugee fa nag nii wa indahu mafatihul ghaybi laa ya'lamuha illa hu yàlla nee na ghaybu caabi yi koy tëj bu nekkoon néeg caabi yi koy tëj man maa ko yor maa ko xam laa ya'lamuha illa huwa yàlla nee na amul kenn ku xam ghaybu ku dul moom kon ñi si nekk di hasard di hasardé wu damay seet lii damay seet nañ dem seet seen bopp man ku ma woo nii ma damay seet dama damay faj consultation nag mën naa ko def mm. mooy nga wax ma li ngay daj si journée bi yëpp li ngay yëg li ngay dund yooyu mu wax la lu xew ci en rapport avec man li may liggéey mm. mais nañu dimbali nit ñi ci suba lii mooy xew yàlla nee na moom rek moo ko xam mm-hmm. ay naxaate kese la te koo ci déglu di début à la fin du la wax lu leer il faut mu benn poqus boo xamante ni boo nii nii rek mu jaar foofu ah man kat lii laa waxoon mais ku xamul ndax bu ngoonee di nga fanaan mm. booy boo tëddee di nga yeewu mais yow en toute logique wala nekk di sonal nit ñi man kay seet maa ci man man na nii ma non man damaa def quatre émissions dooga ñëw wax ci loolu parce que j'en ai mm. gis nga nit ñi nañu ragal yàlla mm. boom euh, euh, ak ak sëriñ ak sëriñ mm. dëgg dëgg dëgg dëgg sa papa dafa ma mos a wax benn baat dafa mos a wax ni ma gént dëgg ki koy firi du ko jàng du ko jàng du ko jàng te loolu du deñ dëgg la gis nga yonent yàlla Yusuf ni mu ay woon ci firi gént yàlla moo ko am fu ma ko jaarale mais gis nga mbiru mbiru sëriñtu man ci li ma gëm nekkul lu nga xamante ni da ngay dem ci ay nit ñu naan la secret lii secret laa kii lii ngay ku di def ay non man li may doxal nit tegu ko sama loxo dama koy waxaat fii te fu ma ko fu ma ku ñëw kër ga ku ñëw kër ga lii laa lay teg lii laa lay teg moom laay rendee jinne moom laay toroxale jinne di ngeen ko gis ci émission bi mm-hmm. dama ci rendi jinne damay rendi rendi laay def rendi fa lam taqatuluhum walakin allah ma ramayta id ramayta xam nga bële passé wax nañ ci émission yi day gàtt wax nañ ci te développé ko maa la wax loo ba doyal wax ba doyal xam ma la génnee nga dugaat ma génnee nga mm-hmm. euh, mu bañ tubale mu bañ dama lay rey kooku amul benn werante mm-hmm. aay bi laay jàng rek falam taqatuluhum walakin allah xataluhum kii bu jàllee mm-hmm. ñoom ñu ko xam dañ may wax ni ma kii paaka la. paaka la day dee amul benn werante. da ngeen gis émission mënu mënu tul ci man. mënu tul ci man mënu tul ci man bu neex yàlla. ah mënul kaaraange tamit. mu mënul. mënu ko ci man. mënu hmm. ko ci man. bu neexee borom subhanahu wa taala dama koy rendi nii comme ni ngeen gis ci émission bi. après ci beneen bi mais moom tamit jékki-jékki mel na tuub na te tuubul. mais loolu euh, dafay leer moom bu fekkee tuub na te tuubul yooyu damay dajeeg moom Mm-hmm. léegi su génnee waa ji day day duggaat ci waa ji waa ji daf may oo ni ma affaire bi man ba léegi moo ngi def ni ma ko def bu ñëwaatee su ma ko daaneelaatee dama koy rey c'est très facile mais li ma doon wax foofu Cheikh dama mm-hmm. bëgg a daaneel ci boobu rek ñu jàll feneen waaw mooy que dafa ci am kenn koo xam dama ko doon suivre mm-hmm. au départ nag waxuma lii xew daf ma bàyyi ba ci biir ma xamal ko ni ko ah man de wax dëgg yàlla formule bii mooy ma la toppee nii daaw ma ko toppee nit ñi te pare wuñu France la nekk mënu ma lan la ma ne ko ah def nañ une semaine ba léegi affaire yi nii lay def qu'est-ce qu'il si la ma commencé di nettali ab sëriñ boo nga xamante ni jaaroon nañ ci moom sëriñ bi ni leen dama leen di euh, moog jëkkëram dama leen di jox xaalis dama leen di wutal xaalis. Mm. dama def benn rappel bu ndaw pour nit xam. Mm. Mm. dama leen di wutal xaalis. léegi ñoom tamit ñu ne ko ñun bugg nañ xaalis mu leen bi ci gën a gaaw nag mooy jinne mu boole leen ay jinne. ñu ne ko waaw léegi mu dugal leen ci procédure bu nga xamante ni. Mhm. waaw dana leen def leen nii def leen naa def leen nii def leen naa li ñu comprendre mooy ce qu'il cherche à faire c'est d'installer le diable ni mu installé jinne ji ci ñoom moom lay seet mais toppatoolu leen benn xaalis mhm. moom ci boppam mooy liggéey ak ay jinne yaa ngi dégg mhm. liggéey bi ni muy demee mooy pacte la moom ak jinne ji jinne ji li mu ciy gañe lan la mooy bu fekkee jinne bu ma xamante ni jigéen nga ko booleel mu koy feeñu dem ba nga xamante ni euh, dugal nga ko si ku jigéen ci carrément chaque jour mu ñëw sëy ak moom. Mm. mu ñëw ci gént sëy ak moom jinne ji loolu la ci gagné en fait jinne ji waa ji li mu ci gagné. Mm-hmm. mooy euh, fexe maîtriser leen euh, client bi. Mm. ba nga xamante ni lu mu leen laaj di jox ko. moom mm. xaalis lay gagné. xaalis donc xaalis bi nga waxoon moom la lay wutal. en contrepartie sax yow moom lay jël ci yow. moom lay ci yow ba pare encore dem ba terroriser leen ba nga xamante ni ñoom pratiquement nelawatuñu. chaque jour que jëfee luñ daawul gis ci kër gi ñu koy gis lu ñu daawul daj ñu koy daj xoolal mu mujj leen sax jëlee France indi leen ba Sénégal waaw di leen di leen yokk dofloo nag yóbbu leen ci àll yi ñuy wër ay guy Cheikh euh, am na yoo xamante ni bu ñu ko nettali ci émission yi da nga ne lii mënul nekk ko te pourtant ay sëriñ ñoo koy defloo nit ñi ñu leen di envoyé ay 900 euros ay ay ay ay 700 euros envoyé ma lii envoyé ma defoo dara lu dul boole leen ak ay jin mm. bu ñu waxee ngay xoggale ko maa fi man ku fi jaar maa fi man def def def naa da nga ragal yàlla mm-hmm. te nekkul exemple boobu rek dafa am ñu jaar ci man ñu bëri ñoo xam dañoo indi loolu te man aussi tamit mm-hmm. kooku ma lay wax noonu su ma defee su ma ku ma ko xoolee rek xam naa ni kuy jël ay jinne la di boole ak nit ñi mm-hmm. pour di régler problème boppam mais régler lu problème kenn na ragal yàlla wa taqu yawman turjauna fiihi ila allah yàlla da ko wax ci alxuraan lu bari nee na ngeen ragal bis bi nga xamante ni da ngeen di delluwaat si man lu jara lu jar a sóoraale la xale bu ndaw juddoogoo defoo dara loo mën a def mooy nga dimbali nit ñi bu fekkee am nga xam-xam te nga jël xam-xam bu nga xamante ni bu la ak lislaam mm. mais defoo dara lu dul rey rendi ah boole nit ñi ak ay jinne dundatuñu defatuñu dara te moo tax si moo moo dolli la mm-hmm. c'est euh, pourquoi il faut faire attention gis nga lu mu leen waxoon xaalis laa leen di jox mm. jëkkër ji dafa perte liggéeyam jabar ji dafa perte liggéeyam ñu toog ci kër ga nag ñoom ñëpp jaaxle mm-hmm. mu boole leen ak ay jinne ñu toog foofu. mais moom lu muy gagné ci toroxloo nit kooku. li mu lay li mu si gagné wax naa la xaalis bi lay gagné. waaw léegi boo mais 900 euros 700 euros. 800 euros te ñooñu mënuñu ko bañ. yóbbu na leen point mort ba nga xamante nit sax nit kii. waaw nga koy ko nax moo gën nga nax ko ba mu jeexal la ngay wuti keneen. mais affaire bi yemul foofu c'est que dama bañ a a poussé ba mu ëpp moom moom moom euh, moom si boppam euh, yóbbu na leen fa gën a sore foofu. Hmm. mais defkatu luy lu lu bon. Mm. mais faalewul dara. Mm. faalewul dara. di leen wax daal am na benn sëriñ bu ma. amul dara dara lool lool lool lool kalaame bi bari na. sëriñ bi Cees la dëkk ku tuuti la. am na benn vidéo ba mu yor boo xam ne que dalay lay wan ne faalewul xaalis ja euh, valisu xaalis la lay wan xam noo xamu ko ab photo ci xamu da ko ab vidéo ko mais vidéo bi lim mi ñëw sama téléphone bari na de te nag gis nga ku lay envoyé xaalis moom ah jàppaleel moo la gën a soxla xaalis. bu doon xaalis bu bees sax la lay kii di def appel vidéo di jël xaalis bi di ko sangoo nga xam ne xaalis baa ngi ne mais wala bu mais jël vidéo xaalis boobu <coughs> yàgg na de ku bu nit ki nag li mu gën a bëgg ci leen koy nax gis nga jël xaalis indi 12 million ma defal la ko 24 indi 6 millions ma defal la ko 12 ah indi 24 million ma defal la ko 60 ah? yooyu yëpp ku ci dugg ci sëriñ loolu dal yaa ko teg sa bopp. nit nag da ànd ak sa xel xool lu mën a nekk lu munul nekk nga bàyyi ko bañ nax sa bopp. am sëriñ daal li ma jàkkoor mooy jàng ñaan fa faju ak jàngoro bu wér wala soxla bu faju mais boo ci bëggee dugg ci ay dil nag lu la dal boobaa yéen ñaaree am parce que doo wax du wax mhm. ndax la ngeen séqoon la mhm. ngeen bàyyi xel di séq ak sëriñ lu dëggu loo xam ne que bu mhm. bu mënee jóg ci kaw du la wàññi dara. Mhm. waaw mais tegi dil ak ay mercure ak ay naam am na ku ma ko ma a wax naan ma sa gaa yi ay man man ko yii saay bu ma ko wax sax téléphone. Mhm. jaara fa bloqué ko nag. man ay nekkuma ci dil ak ay kii yu mel noonu de. nekkuma ci ay tegi dil ak ay indi kii yu mel noonu. ba naa bu ma ànd nit mu gisee nga xaw a lëndëm tuuti bi mu lëndëm gi feeñ ma ñaan paas pare naa ci yow. doxuma ci yooyu. ngeen bàyyi xel mais sëriñ bu tuuti bi nekk Thiès. ñun may kalaame moom bari na de bari na trop xam na boppam nag moo tax fi nekk nii euh, ku ca dugg nag lu la dal yaa ko teg sa bopp parce que kalaame bi bari na nag te man bu ma lay li ma bëgg mooy sëriñ bu ma la envoyé li métti nit ñi may am réponse di ko envoyé amul problème mais boo demee ba bu ma waxatee dara doo ma faale ndax lan euh, yooyu day ëpp. ragal leen yàlla te yem ci li ngeen man Euh, Aliou Dieng mhm. léegi ñu ñëw nag comme soññee nga ba pare mhm. léegi jëw ñëw ci jëmmu rab nag ak mhm. jinne ku am faru rab coro rab bëgg a tàqali moom comme yow jinne nga gën a sawar di wax ñenn ñi moom rab yi la ñuy wax moo tax tàqali ko tàqali ko ak ak ak rab wala jinne euh, daf ci am lu yomb am lu nga xamante ni yombul te loolu dafa am ci leneen lu ñu dugaat beneen soññee lu yomb mooy nga dajeeg jinne wala nga dajeeg rab mu solu la kooku dindi bi amul dara lu jafe li jafe mooy ci say maam ñu jëloon la yóbbu la ci biir xàmbu nga juddu ñu war sa karaw boole ko euh, lenn ci gàtt bi ñu rey jël yóbbu sa biir xàmbu ya caaxaan dindiwu ko parce que sa sa nu ma koy tuddee sa euh, sa gene laa koy tuddee xoma mm-hmm. dem na karaw ga sa sa information génétique la yóbbu. dañ koy repérer ñoom xam nuñ koy def ba nga xam foo nekk ci biir adduna bi ñu ngi lay topp. Hmm. am na base bu dëgër. li nga xamante ni tam da nga kaa jugal sa bopp yow ko sa bopp comme lii ma doon nettali léegi nga xamante ni dañoo dem bu ñu demee waa ji soit parfois mu laaj leen karaw soit mu laaj leen ay we soit mu laaj leen lu bokk si ñoom mu ni leen nag pour xaalis bi la fekk pour boole la définitivement ak jinne jëla hmm. yooyu neexul dindi hmm. mais daje rek jinne boo xam da ngaa daje ak moom rek kooku ah. amul punkal comme bonjour waaw kooku kooku nekkul lu jafe mais jinne ji nga xamante ni dafa am fu mu jaar ba egsi si yow comme ni nga ko waxee toujours kooku moo nekk un véritable problème hmm. gis nga am na beneen vidéo rek bu nga xamante ni hmm. euh, dafa war a jàll waaw ñu seetaan ko waaw سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين من بابل الحارة وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما لهم فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه وله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل حاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لهم الشرار ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ونقول لا تستطيعوا منزل على ملكين فلا تقربوا تمارون وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بالقادرين ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وهل يولكن وهل يولكن وهل يولكن يولكن يولكن يولكن يولكن يولكن يولكن وهل من يولكن يولكن waxal ak man yow tam yow la kan wax la man ma bàyyi waxal ak man yow la kan mooy commencé lakk rek waxal ak man yow la kan waxal ak man yow la kan yow la kan waxal ak man yow laay déglu dama commencé lakk rek waxal ak man yow la kan ah yow la kan waxal lu leer fii lu leer moo fi daw da ngay wax yow la kan digal ko fi yëpp xam ñu mu demee yooyu ñu nekk financé yow nag kan wax nag man بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم الغيب ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤلم حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وما بين عليه ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤلم حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وما بين عليه ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء والله سميع عليم الله الذي علم الذين امنوا الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يعبدون النور يدخلون أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار

noo tudd noo tudd noo tudd noo tudd noo tudd wax ma sa tur noo tudd wax ma sa tur noo tudd noo tudd noo tudd da ngay dee de da ngay dee de foo jógee wàllu man ci dara dama jot dama jógee ma ne foo jógee waxal ak defal nii waaye loolu ngay sant ma la ko defal li ma lay def def à la fin c'est tout compo på. xam nga pare Thank you. nagam ah loo yëg lan la loo yëg lan la loo yëgati yëgatoo dara waaw na mooy fàtt ci ne jotewul dara te ni mu ko defee noonu nu ma mën a nu ma mën si biir bi la yaa ngi dégg moom génnewu ko ci biir yi yaa ngi dégg moom fii la toog ci bopp bi la toog boo xoolee bi nga demaatee li nga fi wax bopp bi metti ak gént di sëy loolu fii la koy lijjante mu def fii la toog yaa ngi dégg moom nee na dafa yàgg ci loolu dafa laaxutoon kon bu may rek sax fii la ko fekk dafa négocier bi dem àndaat ak yow dem yoon yaa ngi dégg wax loolu la oui daw bi bi bokkul ak loolu moom dafa xaw a circulé waaw xam nga tey jii moom tamit loolu dafay laaj parfois ñu leen koy leeral xam nga jinne bu toogee sa biir ñaata at depuis deux mille quinze nga ko kon deux mille quinze ba deux mille vingt et un nekk six ans mais jinne dina génn sa biir bi noonu benn fan bi noonu dootu yëgati dara abadan sa biir bi noonu du demee noonu dina am ay yi nga xamante ni da koy yëg benn benn tuuti tuuti mu sedd parce que moom bu bëggee ko ko fa cumukaayam nañ ko mën a wax da koy toogaale ci biir bi yooyu nag ñun bu ñu defee li ñuy def ba kii ba ba pare mu deñ ba pare moom cumukaay yi muy yi doxul moom moo fa nekk doxal léegi sa biir day dox day commencé nag léegi di jàng nu muy doxee moom tamit comme biir bébé rek moo tax léeg-léeg nag mu ngi métti léeg-léeg nga si yëg dara mu daan mais moom Moussa kon bi muy bi nga moom li mu def nii bu santee jiite jox la nit nit mën na héberger xoolal fii héberger naa fi nit dindi ci moom cinquante jiite te ba muy dem jeexul yaa ngi nit mën na héberger nit jigéen jinne yi pare pare mais sa cas bi doo moom foofu moom wax na lu leer te ne koroog bi may rey Moussa bi moom dafa laaxatu ci biir mën a camoufler wu ànd ak yow dem te comme jinne bu nga xamante ne moom objectif am sexuel la mooy moom ànd loolu dafa laa bëgg o mën a xas bi dadaa ndax xas ba ànd ak yow nga dem ndax xam nga boobu bu dee jaay wax problème sa sa sa sa sa xel toogul waaw yooyu moom moo koy jëkk comprendre ba nga demee ba egg luy manifestation Moussa am fa dafa amoon mooy yi may nettali da ngay gétt ak boobu nekk yooyu moom la comprendre léegi nag moom loolu moo jaar ak moom moom lu jaar ak ñi bay yaa ngi dégg nga day def ko observé une benn ñu def dañuy ay caaxaan waaw dañuy lakk dañuy xamal dañuy rey bañ noonu lañ lay def doo ko ñoo rey rek dañu koy rey rey bay bëgg fii dañu fee daaneel daaneel bay bëgg amul volcan amul vite fait alxuraan ak ab jaaro jaaro bi la ñuy reyee mu raw jaas mu raw jaas mu la ñuy reyee jiwal jiwal nga ne ko bi ñu loo ci wax. waaw vidéo bi. Mm-hmm. dafa yéeme te day delluwaat ci. Mm-hmm. mbir mu garaaw bu nga xamante ni nit war na def attention. war na dafa am ñetti frère. yoo xam ne mm-hmm. Touba lañ kenn ki laa njëkk xam ma faj ko ba mu wér gisante wuñu man ak moom. léegi mu ne ma sama ñaari frère yi aussi dafa mel ni dafa am lu ñu àndal. ma ne leen li gënoon mooy yéen ñetti ñëpp ngeen ñëw. seet si ma. bu ngeen ñëwee ma xool. bi yàlla defee ñoom ñu egg si ñoom ñetti ñëpp ñu fanaan kër ga mais ci guddi gi mu am lu ma doon lijjanti man ak ñoom. ci biir hmm. salle bi. waaw yàlla def euh, kenn ki dama ko teg jaaro bi nii rek ma gis muy gonflé. muy gonflé waaw gonflé gonflé gonflé gonflé gonflé. Hmm. mu xam ni kii moom su ma ko nee rek day daanu ma bàyyi ko. <laughs> ma jël keneen ki teg ko jaaro bi ñu dem ba ci kanam tuuti ma gis mu ne ma sama yaram bi de mu ngi commencé di tàng. Hmm. ma bàyyi ko dellusiwaat si keneen ki. parce que premier bi moom nee naa la kooku dama ko faj ba pare moom moom mooy ci seen mag bi euh, ki ki ma njëkk ki ma njëkk a jëflante la mm-hmm. ki nga xam moom laa tegoon jaaro bi muy gonflé ma teg ko jaaro bi bañ ko bàyyi mu jékki-jékki ba si yàgg rek mu éclaté yuuxu ci biir salle bi man la diw diw moomu boole ak moom mu tuddee turu diw moomu bañ a tudd tur tudd mm-hmm. diw moomu moomu boole ak moom mm-hmm. ñoom si boppam ñaari frère yi dañoo tiit parce que waxoon nañ ma ni ma dafa am benn xaritam bu mu Euh, bu mu ki yonte loon bu mu bu mu jàppante loon waa ji tëkk ko waa ji ko li mu ñëw ci kër gi yëpp mu naan ma sama xarit boobu bi ma tëkkoo ba léegi daal wax dëgg yàlla foofu laa foofu laa gëjee amee lu ma neex mm-hmm. mais ma ne ko tëkku dëgërul tëkku moom man man loolu laa waxoon dama ne ko tëkku dëgërul mm-hmm. mais tëkku bi mu doon yaakaar dama doon yaakaar mu def ko ay liggéey ah. mais di tëkku bi da ko booleeg jinne da ko booleeg jinne gis nga foofu ah dañ fi jàng lu bari mm-hmm. jinne ji mu ne moom Moussa Ponti la Moussa Ponti Moussa Ponti. Moussa Ponti waaw mu ni la ko waaj xëcce da ko xëcc. Mm-hmm. ki ko xëcc boole koog moom xaadim la tudd ma joxe tur bi nag xaadim du ma du ma sant bi waaw xaadim moo ko xëcc. depuis depuis mu ngi mu ngi États-Unis xëcc jinne ji def pacte ak moom jox ko xaalis ni ko nag dugal ci sa waay ba ba muy dee. dee ne leen tàqali. Mm. ci vidéo yi noonu ki ki ki ki nekk noonu. dee ne leen la ko wax. ma ne ko Moussa kon yow xam nga ni dee du leen taaxali mu ne ma déedéet kii du ma ko bàyyi ma ne ko boo ko bàyyi dama lay rey mm-hmm. fii moom loolu mooy formule bi bàyyi rek boo génnee kay ba manifesté wu bu baax bàyyi soo bàyyi dama lay rey mais boo ko bàyyi dama lay rey ñoom dinañ la jëm rey yow tamit wala man ñoom waxuma la ñoom mais kuy dund si kaw suuf lu ma dara calculé wu ma leen sax. mais mais dinañ jéem lu ko wax bëgg wax. ko jéem laa bëgg wax ko. dañ koy jéem jëm nañ ko lu bare dañ koy jéem duñ la bàyyi. mais boo ko jéemee boo insisté sa bakkan dafay des. dafay des te man du ma la lijjanti nekkul man maa lay lijjanti man c'est que damay cax rek. damay cax. damay damay cax rek dama ni bis boo bis boo jugee pour ci man nekkul man maa lay lijjanti. loolu leer na. du muy wax lu leer. jeex na dama ni. bis boo jugee pour ñëw ci man du man man maa lay lijjanti. mais kon bu la déggee ci wàllum jinne ni nga ci aaye nii. waaw euh, ku la mayoon Pala Ndiouga Kébé ba ca Touba. waaw mën nga ko lijjanti ba dëkk fa. Euh, comme da nga di wala kër ne fii dafa am jinne kenn du fi dugg kër yu mel noonu ku la ko may moom nga jël. Euh, dafa laaj dafa laaj réflexion. ah bon xamal si si dafa laaj réflexion. Hmm. mbiru jinne du noonu. mbiru jinne du noonu. waaw xamal tax man la du noonu. Hmm. day fekk pàkk bu nga xamante ni am na un antécédent. bu nga hmm. xamante ni jinne ji am na fa base bu leer. boo fa duggee mën na la sonal. mën na la waaw ak loo am am xam-xam. waaw boo fa duggee mën na la sonal. waaw mooy comme ci li ma la doon wax rek ci nele nga dem am ci noo jaar dugal ay affaire dugal ay affaire ba ji ñu boole la ak jinne ci benn façon bi kooku neexul dindi c'est la même chose am na pàkk nu muy constitué woo mm-hmm. ña ko jëflante am jëflante yu ñu jëflante ak jinne bàyyi ko ak ñoom mm-hmm. ma man li may wax mooy képp ku ñëw ci man pour fajo la la topp topp la ak nu mu la mën di toppee boo ñëwee li simple dañ koy dindi léegi li compliqué nag ñu laaj la waxtaan ak yow boo ci buggee impliqué wu pour ñu dindi ko ñu dindi ko parce que am nañ ci ay cas yoo xamante ni nit ñi dañ ci dañ ko dañ ko dañ ko mujjee bàyyi nanguñu see impliqué wu loolu loolu rek seen Cheikh doon émission pourquoi mu bàyyi ko mhm. nangu cee impliqué wu pour man ma dindi ko dafa préféré bàyyi arrêté mhm. ma arrêté c'est pas simple c'est mhm. pas simple parce que da ngay xam la leen jëw nar a fekk dafa a a voilà voilà mu jëli affaire bi daal di xam ni moom si boppam yi ma koy laaj bu ma ko joxee su ma tegee loxo rek moom mën na am complication à son niveau. mu daal ni nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi suuf ko nañ ko bàyyi suuf. nit jeex na mais gis nga sànq li ma doon li ma fu ma bëgg a terminer. Hmm. gis nga kooku sa Ponti boobu. mu ni day yóbbu waa ji ma ne ko duma ko seetaan doo ko yóbbu à terre. Hmm. rek moo fi ma nekk ma tubal la nga génn nangoo génn ma rey la. Hmm. mun ma ale euh, euh, comment dire encore kii du ma ko bàyyi. isaas laa ko rey. Ah, bu xasee rëy moom saye à vie. saye à vie moom amul euh, lay mere ci yaaray la. si si si dafay man a nekk duñ la bàyyi noonu. Mm-hmm. mais ay shayatin ak ñu nga xamante ni boo leen tubalee du ñu tuub pour génn bàyyi nit yi mm-hmm. te ñoom amuñu benn rapport ak nit ki. Mm-hmm. parce que nit ki dafa war dund dundam yàlla da ko togg jëf pour ëllëg mu atte ko nga yàq addunaam mu doon jàng lépp nga yàq ko. tout nit ñi ba nit ñi sax di commencé di ko critiquer naan kii dafa def nii dafa def nii ci kër gi. fekk yi muy melokaanoo yëpp yow yaa koy def. mais day dagan boo eggee fii dañ lay rey. c'est très c'est c'est très clair. kon appareil yow li nga rey ci jinne boo ko doon appareil mën na 2 millions de jinne. non <coughs> million mais korok dama fi doon wax benn wax. Mhm. dama ci bëgg def benn passage entre bu ndaw. Mhm. mooy jinne nuñ koy rey parce que bi ma la waxee rey da nga ni ma fooy téye. jinne yaa ngi koy rey ci nit ki mu solo. ci ki mu solo. bu solo ci nit ki. ba mhm. manifesté wu nga wax ak moom mu génn wax ci baatam. kooku. bu fekkee jaar nga yoon boo ko rayee jinne ji day dee waa ji après nag lii moom day tëdd. day tëdd. daal di mel ni ku xëm mel ni ku nelaw bu yeewoo rek nit ki mooy yeewu mais jinne ji dee na. jinne ji dee na jinne c'est que moo doxalee noonu si seen mbir. yow jinne boo leen rayee amul ñuy yóbbu ku wax naa ko dañuy seey. amul suul amul amul dara day disparaître. day disparaître foofu mu ne fa la yem kii lañ safara lañ. Mm-hmm. safara lañ alal jin bàyyi woon seen njaboot gi koy doon nag. ñi koy doon yow mirage bi war sa toppatoo ma ko yow daal na dee rek nga dem sa na dee rek toppatoo ma ko ñoo ne nekkoon waa monument ba ñu nekkoon si waa monument ba bi ma tasee seen seen pacte yooyu dañu wax ni ay centaine de milliards lañu yor man soxla ma soxla ma ah ba bëggoon jox la la waaw si ma def ak ñoom alliance ah bon si <laughs> wallaahi <laughs> mais mënoo jël ci milliards yi milliards non xoolal yow lekkoo ci milliards yi comme man fi nekk nii Tektal TV na dem ay comme genre France 24 nga nangu benn diggante rek xëpp ma ci milliards yi après nga génnaat nag. waaw comme ñoom dañuy waraate nga war leen rek wala. sëñ hmm. ñëw ba ci tali bi. Hmm. benn benn mécanicien. njëkk a egg si tali bi daay taxaw. Hmm. danga oto ñu gis oto bi sore trop. oto bi jàllee ñu ne ko mais oto bi dafa sore woon bi ngay taxaw et puis yow mécanicien nga mu ni li ma nekk mécanicien moo xam moo tax ma xam oto. moo tax ma xam oto waaw. mais alal jooju bu ko laal. ah boo ko laalee. non kooku doo nelaw bu ko laal bu ko jege. ah jeex jeex na man téye kooku bàyyi ko. kon daal man ba euh, kii nu mu li naan sama kaas ndox bi du ko yemale bëri ko beer. xoolal mais suñu taqali géeg wax laa leen wax dëkk bi dëkk bi dëkkuwul de lu bari du dëkk de. billaay ku ci am sa liggéey booy sutura téye ko junni loxo bari na milliards yooyu dëgg la ca laxasu bul xam bari na ñoo jàpp ne ñoo la ëppale fekk yaa leen gën a sant de wallaahi waaw am na ko nag wallaahi gis nga sëñ Cheikh hmm. gis nga pour te dire que ni jinne yi amuñu xaalis bu ñu mayee gars yi dañuy sóob dañuy sóob dama lay jox jinne yi dara du ay sóob la xoolal gis nga Moussa Ponti boobu xam nga la moo ko dugal ci waaji deux millions lañ ko fay mun na faa dund à vie. <laughs> deux millions deux millions lañ ko fay. mais jigéen bi moom deux millions CFA lañ ko jox da ko waxee. deux millions la ko xaadim boobu fay. mu jógee Amérique nar a dëkk ci waa ji te ni dee moo ko fa jëlee toute la vie pour deux millions. kooku waroon tudd xaadim nag deux millions la la deux millions am ci pacte bi yow. loolu am ci nekk ci biir waa ji deux millions. waa ji li mu ci am mooy toroxal toroxal kooku. waa moom loolu la ci am toroxal kooku mais toroxalu ko parce que dama ko rey. mais gis nga li gën a mooy. Mhm. ndekete moom njëkk na am benn coro mu coro rab. mu wala coro jinne mu mu dëkk ci moom. léegi la temps que Moussa Ponti boobu mu ngi woon ci yaramam. coro boobu manifesté wul. manifesté mais Moussa dafa dee rek. coro bi Ibrahima dellu Touba bi mu delloo Touba mun ma signal bi man de yi ma doon yëg sama yaram moom man xam naa ni musaa moom nekkatu fi. Mhm. mais daal temps yi moom damay gént rek. day jour que jëfee te bu ñëwee day seeg man man affaire jaaxal ma terroriser ma te jox naa ko jaaru aussi. mu dul nekk loo xam ne dafa jóge fa la ñëw quoi lu bees. waaw ma ne ko te nga ñëwaat moom sax moom proposé ñëwaat bi mooy vidéo bi. waaw moom proposé ñëwaat bi bi mu ñëwee mu dugal saal bi ñu toog ma tegaat ko jaaro bi rek di ko seetaan mu ne ko gëmal ba di mu gëmm fu mu nekk rek wax ma ko <coughs> mu ne ma ci biir bi ma continuer ba si yàgg mu ne ma nii ma teg ci bopp bi muy gonflé waat gonflé ba si yàgg rek mu explosé. ma ne ko noo tudd mu ne ma Fatkine. Fatkine Fatkine loo fi def. mu ne ma dama ko te duma ko bàyyi te duma ko bàyyi duma ko bàyyi fat ne mënoo dem sa moroomu jinne yi mu ne déedéet man kii laa bëgg ah kon jinne yi dana am ay tur waaw bien sûr ah, ah. <coughs> bien sûr dañu am ay tur tur yi ah. parfois ay tur julit sax lay doon mm-hmm. waaw boo ma joxee tur julit te ngay nekk ci lu bon rek man damay xam ne même bu ma la tuubalee doo ñëwaat man fat ki te mën naa tuubal nga génn mu tu di ngeen ko gis vidéo bi muy jooy mm. jooy ak dee du dem ma ne ko nag man kii tuubaal la jëm amuñu jot mu demaat foofu ngay di gént ngay nekk foofu di ko di ko sonalaat. Ah. dama lay rey mu ne ma doo ma rey. baaraaw yu Fatkine. ah dama ko rey kay. wallaahi oh Fatkine dee nga ko gis dama ko rey de. Fatkine dee na Ibrahima Ibrahima bi may ñëw. Ah. laa ko gungee mu dem ñibbi mu dem ñibbi Touba. waaw ah, Fatkine mu dee na ci sentiment man mission laay dox. Hmm. mission laay dox. moom taw la woon wala caa la Fatkine la woon wala. non jotuma ko laaj ndax taw la mais jigéen la da ko da ko bëggoon te moo fa jiitu kële mais dafa làqatu woon daal di camoufler di ko xaar Mm. ñoom ñaar ñëpp duñ mën a manifester wandoo ci même ci même corps bi. il faut mm. que kenn ki nekk fa ba dem. keneen ki mën a ci ne ñoom dinañ mbaraan wala. <coughs> dinañ mbaraan comme par exemple benn gelu jinne waaw ah. topp lu man ñetti góor. wala benn góor lu man ñetti. bien sûr loolu nag lañ ay. Ah. waaw loolu mooy seen fort. Ah, kon fidelum quoi. <coughs> loolu mooy ñoom plaisir sexuel boobu ñoo ngi koy am ci bu ñu man a àndeek ak nit. mais mm. bu ñu nekkee en état jinne ci liñ ma nettali ñoom. Mm-hmm. bi ñu nekkee en état jinne du ñu am plaisir boobu loolu moo tax ne ñu ñëw ci nit ñi. pour ñu am plaisir boobu. Hmm. loolu moo tax mais daal jàngat bi ñu ci jàngat mooy kuy def nga def lu baax toujours. def lu baax toujours. Hmm. nga def lu baax. Hmm. boo xuloo ak nit. ah nga seet sa diggante ak yàlla. loo ko mën a baal nga baal ko. mais xuloo ak nit jàpp ne yaa ko ëpp doole. voilà booy bi da doon jàng. jàngam dafa yàqu léppam dafa yàqu. bi léegi même bu ma soxla toog ak ñoom gis nga ñoom trois bi ñëwee foofu day jekki ba si yàgg rek mu déréglé wu même bii ñibbi maa ngi koy wax muy retaan ma ne ko léegi nit nga nit nga nit nga waaw parce que da toog moom nga xam ne kii am na lu nekk ci moom léegi sa moromu jullit yow mm. nga teg ko loolu jàpp ni ak bàkk la mm. te nga mënoon ko baal ngir yàlla mm. te boo demee sax yow yaa ko tooñ ba pare teg ko ab jinne boo ko booleel boo ko defee nag muy dund ak moom nga yaakaar ah, mu bu jinde jiw yi amee problème sëñ bi day am problème. Hmm. d'office day am problème waa ji nag moom man. Hmm. jàmmam dong laay laay laay laay laay laay laay laay réglé. kon bindal hmm. bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir teg tegtal mooy daw ak Aliou Dieye émission bi nga xam ne que ah tay ku sa jinn yëngatu ci Europe. ku rab yi yëngatu faru rab cor rab. Aliou Dieye mi ngi yëngal dëkk bi. Mhm. Ah, mi ngi jëflanteeg jinne yi. Mhm. ak rab yi faru rab. te faj bi du metti bu la neexee du leen gisee te nee na du yàgg respecté li mu lay wax rek. Mhm. incha allah di nga am ndam bu baax a baax a baax nee na nag jinneeg rab lu mu ñàng ñàng <coughs> ñeme na ko affronté. te da ci am ndam incha allah bindal. Aliou Dieye nga xam ne que léppam nag alxuraan lay doon mhm. euh, lu faju bu sell man damay bëgg fépp fooy fajoore rek sa ngëm yàlla di yokk pas mhm. muy wàññeeku daal mhm. bu mënul yokkit bu mu wàññeeku bindal 77 263 88 48 77 263 88 48 77 263 2 ak 6 ak 3 88 ñaari 8 48 4 ak 8 beneen bi 76 bii dina sonal ku déggul laaj 171 1 ak 7 ak 1 74 7 ak 4 77 ñaari 7 76 171 74 77 Aliou Dieye numéro yi am nekk ci euh, Tivaouane <coughs> numéro yi am na WhatsApp nga dis ko soxla mu ci mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp yow mi nekk ci réew mi wooteel appel normal wala nga dem bu naree jafe nga waa bitim réew ñu bàyyi leen ak WhatsApp bi. audio 10 minutes nag boo ko envoyé balaa mu koy déglu problème day am boo ko audio tamit mu yéex a tontu audio waatal mu nekk ci kaw ndax ñi muy waxal day bari te mën na laa bëgg kii mu féete suuf bu baax a baax continuer woote même bu la yeexee rappelé woote waatal ndax ñi muy waxal day bari Aliou Dieye nag di leen wax ne man mii wóolu naa ko ba fii may wax ak yéen ci tey ñeme naa ko ba fii may wax ak yéen ci tey doyloon naa ko ndax lan lu baax laa xam ci moom ak résultat yu leer nañ lii nag féeg maa ngi koy kii damay nekk en l'aise di ci wax parce que man li ma bëgg mooy ki naan ku yokkul da ngaa wàññi te man gis naa ne mi ngi yokku ndax lan la ña jóge di sant wax dëgg yàlla bari na lool te ku fay jógee di jàmbat bu nu waxee balaa ñuy pare yow di nga xam ne moo nekk ci dëgg man dinaa xam ne moo nekk ci dëgg moom dina xam ne moo nekk ci dëgg kon loolu mooy atte bi bu ma amoon koo xam ne que mi ngi dal ci kawam tamit dëgg nii laay toogee wax ko ci kanam. Mm, mm, mm. yàlla bu mu am nag bu mu mën di doon li ma la yéene mooy ndam ak résultat. kon Aliou Dieye bii ba fii may waxee wóolu naa ko rab ak jinne parce que dafa jël lim man ne lii la man yem ci am yeneen yéen ko indi li ko mën a indil xaalis mu ne lii du domaine am kon damaa bëgg ngeen ragal yàlla continuer nag di abonné ci Tektal TV te xam ne émission bu ñëw ngeen am ko même boo am del bind Tektal TV ci YouTube bi rek page Facebook Tektal TV euh, TikTok bi Cheikh Talif Instagram Cheikh Talif wala Tektal TV ñu foo lamb daj ñu njëriñal ren lan yor ñun ñooy def émission yoo xam ne que njëriñ amul publicité amul bourse amul titre bu rëy ñëw la la Tektal Aliou Dieye nga dugg xool njëriñ fa nekk nga kii ko ku la doy mooy loolu hmm. alëji mhm. Effenberg yi ci dëkk bi mooy jigéen ñi nga xam ne que ñu ngi nekk mag ak yooyu mhm. borom kër tëlin mhm. euh, ten jiñ koy rab ak jigéen ñoo xam ne que fun sëyi duñ fa taxaw ñu jiñ koy rab ak jigéen ñoo xam ne jàpp na datu mariage yu bari fun ko jàppee mu yàqu ñu jiñ koy rab ñooñu loo mën ak ñoom waaw euh, lépp lu nga xamante ni da si aju ci jinne jinne moo ko moo nekk responsable bi bu ñu ñëwee rek comme ni ñu koy defalee ñu bëri dañ koy dindi waaw mais comme li ma leen di wax nag mooy euh, dafa am ñetti mbir ci cadre faru rab mooy moom ci boppam mu dem mm-hmm. jàngoro yi mu la teg mu dem xat-xat yi mu la teg mu dem ñett lay bokkul mm-hmm. trois niveau la moom nag mooy jiitu dafa war a dem yoonam mm-hmm. nit ñi nag léeg-léeg dañuy yàqamti moom mën a dem ba pare comme ni ma ko doon expliquer ci ku nga xamante ni ñu nga xamante ni sax laay wax dañuy ñëw mu bloqué seen i seen i règle ma dindi ko pare ni la nag rendez-vous ci kanam tuuti di nga ma woo waxal ma ne règle yi ñëwaat nañ xam nga nga dawal deux mois nag woowaat ma xam nga loolu moom ni mu fa mu demee. ak fa règle di ñëwee am na différence tuuti. parce que li tax mooy dafa am benn procédure boo xamante ni physiologique boo xam ne dafa war a reprendre ci yow. Mm. moo tax waroo yàqamti. l' essentiel mooy yow mu leer la ni ki nga àndaloon dem na te loolu kenn du la ko jàngal ku la dindil jinne da leer ni jinne ji dem na. parce que li gën a leer mooy que ni àndaloo jinne ah, bu fekkente ne faroo boro corop di Mm. kooku moom moo leer di la defal ay bopp yi métti yaram buy métti biir buy métti yooyu dafa war a arrêté ñaar yooyu mooy demam mm. ak jàngoro yi kooku moom moo gën a gaaw mm. mais xat-xat yi ak blocage yi loolu c'est dans le temps loolu nag da ngay daa da def ndànk-ndànk rek ba lépp normal moo tax képp koo xamante ni euh, da nga am àndoon da nga am coro euh, faro rab si jigéen ah. moom ni muy def mooy daf dafa la jël comme étant euh, son partenaire wala sa partenaire dans ce cas du bugg beneen góor ñëw di la côtoyer. di la koo xam rek da koy jéem a arrêté te yàlla moo leen may loolu. Mm. ba nga xamante ni ñoom dañ lay dañuy dañuy man képp nga xamante ni yaa ngi jokkoo ak ñoom ci cadre bëggante ñu bloqué leen seen diggante. Mm. waaw di la créer ay problèmes yu dul jeex du xaaj ba nga xamante ni kenn du am accès si yow. loolu ñoo yàlla moo leen ko may bu ko defee nag. Mm. Euh, bu leen bu ñu leen dindee rek yow nga daal di am. commencé am ay ci yu xamante ni vraiment. waaw bu ko yàlla dogalee. nga daan am jigéen ñu bari ñoo xam na que. Mhm. am nañu problème ci góor bu nekkal mu dem. Mhm. xam nañ ne ñoom ñoo sikk. Mhm. parce que góor ñi ñëw ñëpp duñ bon. mais ñuy baax ñoo xam ne que. dañuy jékki-jékki. parce que tamit nit day am bu lay woo. jëloo jëloo bu yàggee day tee boppam. waaw bu dee jinne def loolu. bu jinne bi demee. demee yow yaa war réfléchir dem woote. waaw bu jinne bi demee rek yow di ngay commencer di retrouver wu say sens yu nga xamante ni di nga mën léegi nag di mën accepter nit ñi ak di mën a discuter nit ñi te doo leen di ñàkk tegin ba ñuy teel a yu mel noonu voilà loolu loolu loolu mooy finalité bi quoi mhm. waaw loolu mooy finalité bi góor góor dina ko yor ni ni mu koy defee jigéen noonu la koy defee góor mhm. yàlla moo leen may loolu rek mais ñoom ils sont pas éternels boo da boo dajee ku ko mën a dindi daal ñun mën nañ ko dindi. dañ koy dindi ñu nekk France ak Italie ak Espagne dañ leen koy dindil ba mu set wecc. Mm-hmm. waaw boo dajee ku ko mën a dindi daal kon daal yow jarul mu jóge Amérique di rab coro rab moom ah. jarul déplacé wu. jarul déplacé dañ laa liggéey. Hmm. bu fekk bu la neexee jarul déplacé fu ñu ko yóbbu Chine ak Espagne ak fële lañ ko fu ñu ko mën di yóbbu jarul déplacé dama dama leen nettali benn histoire bu nga xamante ni daje naa ak moom temps yi bi mu jógee émission si émission bi hmm. dafa am benn femme dafa ma woo ni ma hmm. man de benn problème laa am bu ma duggee sama bureau rek nelaw laay def di yaram bi diis gan eh. bu ma génnee bureau bi nag dara du ma jot ni ma loo koy ma loolu loo ko war a jàppee ma ne ko bu fekkonte ne daal dama lay xool ci wàllu consultation xam lan la dama lay wax ni la liggéey la bu bu ñu sëf njibar. bu ñu sëf bu ñu sëf njibar. njibar xam nga njibar. njibar day day day safal day day saf safal njibar njibar dafa nekk lu nga xamante ni moom mooy dëgëral day dëgëral mbir. Mhm. waaw njibar léegi nag ma ni ko jarul déplacé wu jarul dara. ñu waxtaan maag moom ba jubóo ma defal ko li ma koy defal benn vendredi mënu ma tey dew ma bureau la. ma ne ko rendez-vous rendez-vous lundi boo eggee doo nelaw doo def dara. bu neexee borom bi tabaaraka taala mais noonu la amee. Ah. numéro yi ñu ngi fii mën naa la jox après nga waxtaan ak ñoom. Hmm. comprendre nga c'est-à-dire que loolu tamit day firnde encore que ni te boo xoolee femme bi lu ma révélé nee na man bureau bi kenn rek laa fi nekkal ku nga xamante ni maa ko jàngal bi liggéey bi donc man bu mu amee problème boobu rek amul kenn ku mu mën di nekk ku mu mën a doon ku dul kooku te nee na moo ko jàngal. léegi yow li nga retourné yépp pour fay yàlla wax ma la fay femme bi ah. mooy nga def lu bon. nga def comme ni ma koy koy dindee bu bu dogee rek ci waa ji la jëm. ci waa ji la jëm amul feneen fu jëm ci moom la jëm. Hmm. waaw euh, def lu bon baaxul. parce que c'est pas éternel mën nga def lu bon tey jii. Hmm. bu subaa ginnaaw suba. kooku hmm. retrouver wu ses sens. romb la di dem sa di bon doo ci mën dara. léegi xale yi dox ak xale yéex a wax ak xale yi tëx <coughs> ñu jiñ koy rab ak jinne yooyu nga ci daal. waaw yooyu yooyu moom bëri na si yu nga xamante ni rab lay doon du nekk jinne sax rab lay doon. gis naa fi korog benn. yow rab moom dof doo sawar ci wax ci moom. a sawar ci rab man jinne moo gën a neex mbir ka rab li tax mooy jinne bu gisee lu mu xamul day daw. mais rab moom dof day góor foofu. même rab day góor foofu. Hmm. bis bu génnee rek xamal ni teg nga ko lu extraordinaire lu tax mu mën a génn mu mu nangoo daw. mais jinne mbëtt waaw rab am na ci mbëtt am na ci am na ci am na ci am na ci ba ci kaña sax am na ci rab rab hmm. rab rab rab mbindeef yi ngay gis nii yëpp ñu ñu leen di yor da ngay hmm. gis ni am na ci ay rab ci vois hmm. donc xale yooyu nga gis ñu yeex a wax am na si ñoo xamante ni yàlla moo ko dogale noonu dara jotu leen. yàlla moo xa tax yàlla moo def ñu xaar ba trois ans. Hmm. quatre ans ñuy mën a wax di jëflante ak nit ñi. Hmm. mais am na si ñoo xamante ni dafa am lu leen dugg. toog si ñoom ba hmm. mënuñoo wax. ba mënuñoo wax waaw lu yooyu nag ñun bu ñu ñëwee rek dañuy daal di xam euh, fan la mbir mi nekk. bu ko defee ñu daal si ñu daal si ñu daal si jublu. ak euh, seen i wàll. léegi ñëwoon ci kuréel liggéey nag. ba mënul loolu c' est automatique. c' est automatique. liggéey moom ah. sëñ Cheikh man du ci dellu ginnaaw. liggéey bu mu mën bu mu mën di doon benn rek lañ lay wax ni la dafay xaw dëgër mm-hmm. te loolu aussi tamit <coughs> ñun après buñ ko xamee rek duñ ci sawarati mooy yow si sa bopp nga jugal sa bopp mm-hmm. dem doxal sa bopp yaa ngi dégg mm-hmm. parce que li may leeral nit ñi ñu xam ko bu leer mooy le simple fait de se déplacer vers un mara c'est un acte de pacte que ça soit clair yow nga jugal sa bopp dem ci benn mara pour mu defal la dara rek pacte la pacte la nit ñi duñu dégg loolu te duñu comprendre lu may wax fii defe naa nag émission yi maa ngi wax ba maar dama ni mm-hmm. jóge fii rek dem ci maaraa dem ci maaraa egg ci moom rek pacte la c'est un acte de pacte parce que mm-hmm. yaa jugal sa bopp demal ci dem ci moom léegi nga ni ko nag damaa bëgg nga defal ma lii ak lii ak lii comprendre nga mm-hmm. bis boo ko joxee nag lu bokk ci yow foofu la ñu wax ni bis bu la liggéeyalee du neex a dindi lu bokk ci yow mooy kam la karaw sa we ah, sa dàll sa mbaxane sa yére loo xam ne yaa ko yëkkati jox ko ko si sa coobare bopp bis bu la ci defalee dara caaxaan dindi ko xanaa mu defal la ci dara pare joxaat la ko ni la da ngay dem nga yóbbu ko fii yóbbu ko faa loolu man su ma ko xamee boo ko génnee rek ma defal ko affaire waaw boo génnee loolu ba téye ko sa loxo loolu loolu ñu wax ñenn ñi man leen dem leen ngeen jël lii ak lii ak lii ak lii ba ngeen retrouver ko ñoom ñu jaare foofu daw parce que dañuy ragal dañuy ragal di xew na benn témoignage sax trois sama kër Mm-hmm. bi ñu demee ba yëf yi ci ba ma gis affaire bi ba mu leer man ma gis ko moo xoo ko ni ko sa waay dëj na. dëj mu ni ma man li ma yaakaar mooy dëñul parce que bu ma dañee bu dañee dinaa nelaw ma ne ko attention ki ngay waxal dof. dof dof man damay toog su ma su ma concentré surtout ku ma internet fii. Mm-hmm. balaa ngay dem dinaa la damay damay gis ki nga xamante ni moo nekk ci yow. day leer nañ dama la koy wax. Mm-hmm. gis nga. bu ma ne gis nga Fatoumata la tudd. def na fi benn benn kii mais du mu wax sant bi ko mm. def na benn témoignage si man. Mm. ci kii yi jàll. mais dama ko wax ni ko. Mm. sama xarit la wax dëgg yàlla. mais après bi ñu demee ci kii bi ñu waxtaan ma moom waxtaanu dëgg dama ni ko. gis nga li des sa koy yëg. Mm-hmm. nekkul affaire sëriñ ba nga fekk woon. nga jox ko ay affaire si yow. affaire yu doy waar nga jox ko ko si yow mu liggéey ci li mu ci liggéey loolu moo des sa yaram bi di circuler. loolu nag yow laaj naa la nee nga ma lii. yore nga ko ba léegi lii. fi nga ko suuloon xam nga ko dama nga sulli loolu nga téye ko sa loxo leneen loolu nga xamante ni yor nga ko ba léegi nga téye ko ñaari éléments yooyu boo ko téyee nga ne ma lii yor naa ko ma defal mu ah. départ mu dafa am lu muy lijjanti Dakar bu ko lijjanti pare day dem kër ga ah muy protéger sëriñ bi quoi non protéger ko mais après la comprendre parce que yow Cheikh man boo dajee man mu leer man mii damay faj te li may faj mën naa ko te yow gisal yaa ngi dégg kon man bu ma la laajee deux éléments rek ni la yow dama la ciy dindi li nekk ci yow sonal la nangoo ko génnee. Mm-hmm. Cheikh man doofu ma xam naa ni yow da am loo ciy ragal. moom la moom la Sow wax dafa am loo ciy ragal léegi nag man loolu nag du ci poussé damay damay taxaw di la seetaan parce que yow la ah. lu nga ragal moom ah, ko xam. parce que ah ko def moom lu nga am na loo xam bu tojee ragal na ci maanaam implication boo xamante ni ragal na ci peut-être mu eggaat moom ci boppam benn niveau bu nga xamante ni dina ko jaaxal. wala leneen feeñ ci moom moo xam la mu ci ragal mais xam naa ne am lu mu ci ragal lu tax nangu ma indil information yi. waaw yooyu nag moo tax nag seen Cheikh ñuy wax lu nga xamante ni day jafe. mais bu dul loolu lépp lu nga xamante ni ñëw nga yow nga ànd ci ak nit ñi correctement nit ñi ma ne la boo demee rendre compte. del def lii del def lii nga respecté ko. Mm. li nga yor du taxaw ci yow. léegi koo xam yére bu sol mu tàkk nag mën nga ci dara bu la ko <coughs> bu mu sol bu neexee borom bi tabax la bu nekkee jinne la mm. wala rab wala mbiru euh, sorcier mm-hmm. wala def-def wala cat bu ñëwee dañ koy dindi ba mu set wecc mm-hmm. yëre bu mu sol mu tàkk bu ñëwee ñu dindi cat moom noo moo gën a metti moo gën a neex a dindi mm-hmm. cat moo gën a metti bu la dalee moo gën a metti parce que nit ñi dañuy wax parfois yaram buy tàng <coughs> mën nañ ko jiiñ ndoxum siti mën nañ ko jiiñ cat mën nañ ko jiiñ liggéey waaw ndoxum siti mën na ko def liggéey mën na ko def Euh, liggéey bu ànd ak njibar parce que man bu ma la waxee liggéey. dama hmm. ci dafa garaaw. njibar liggéey la <coughs> mais liggéey bu ñu renforcer la mais cat da koy def yaram bu hmm. tàng. Hmm. yaram bu diis cat man na ko mais li ma mooy cat cat. Euh, man nu ma koy xamee. su ma ci dafa am ay alxuraan yoo xamante ni directement cat lay dindi. am ay alxuraan yoo xam directement jinne lay dindi. am njibar lay dindi. way yaakaar bokk na ci cat bi moom. way yaakaar. way yakaadu mën na ko dindi. bu ñu dugalee ak fatiha. Euh, euh, way yakaadu mën na ko dindi. min kulli fajjin amiq waaw du ma ko du ma koy du ma koy dindee loolu nag. yaa ayyuha llazina amanu jtanibu kasiran mina zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yaqula nahnu ahiya maytan fakarhtum wattaqullaha mm-hmm. gis nga.

sama sëriñ de. mu ne ma duggee damay dóor nee naa leen mënu ma faj. mënu ma jaar mënu ma mooy loolu de ku ma gis samay dóor de. jéem a ma xoolal mais dama bëgg a tamit du ma jaayil bu toog di wax rek nii ak kii nii de. et puis euh. surtout maa ko fi ëpp mais euh, lu leer laa bëgg di teg xam nga moo tax tey euh, dëgg la ni teg fii tegtal. li tax mu man dix di continuer di dem ah, koy teg xam nga xam nga sëñ wax mooy indi wax. Hmm. dafa ay def moo te xamuñu ni même ñun bu ñu tegoon affaire affaire faj gifale hmm. euh, tubaab yi ñooy jàngal. tubaab yi te am fu ñu jaar foofu xamante ni waaw bu ñu dégloo dina xam foo jëm. Hmm. dama woo rek eh Aliou Dieye na def dama am jinne kuy wut ku la ku la faj noonu ngay def <laughs> eh, ah loolu du communication man directement rek xam naa ni kii dafa am lu muy mm-hmm. kii ba mais ah traitement à distance bi noo koy defee ma ne ko eggaguñ foofu de ku baax mm-hmm. mais Cheikh li li li li da li daw li daw yaram li retandu mooy moom traitement à distance su ma ko jàngaloon moom ñeme na ko def noonu ci ay jinne dayaa <laughs> naan jinne noonu la <laughs> non nit ñi dañ xalaat jinne du loolu ku ci am lu nga xam yàlla may na la nga yëngatu sinon mm. nga man mii di la wax nii mm. à maintes reprises jin nañ ma fexeel mënuñ ma dara te duñ ma mënal dara ilaa yawmi diin. ilaa yawmi yow. fexe ba buñ ma mënal dara moom tamit. duñ ma mën a tegtal dara. bu neexee borom bi tabaaraka taala. Mm. tous dara. Ah, waaw luñ ci luñ ci luñ ci xam luñ si yëg ci juróom yi may wax toujours. waaw ah. jinne rab nitu guddi. def-def mm. cat ah, dara. dara bu ñu ci duggee mu dañ léegi. kooku mënuñ si dara wala ñu bloqué ko foofu téye ko foofu. dara mm. mënuñ si dara mais li ma la bëgg wax mooy que ni <coughs> gis nga faj jinne dafa am ay étapes yu nga xamante ni tey jii boo ko maîtriser wul nekkoo ci. amoo ci may yàlla génneel nga daw dem sa yoon nga bàyyi ko. xam nga lu def. waaw am sama xarit bu nekk États-Unis hmm. eh, xam moom naa ci digal Souleymane xaaral déglu ko tuuti <coughs> déglu. Euh, salaamaaleykum wa waaw sëñ maa lay siyaar baax a baax a baax yaa ngi si jàmm waaw moom laay seetaan nii sax moom laay seetaan nii maa ci YouTube bi di ko seetaan maa ngi koy commencé depuis minutes ci ginnaaw. waaw su ma yaa sax dem na fa démb këram Tivaouane waaw ba jëfante nañu euh, jox na ko jaaro bi sax léegi jaaro bi ma ko war a envoyé fii incha allah waaw nee na nag euh, dina ma def signe comme ça mu ni ñuy ni ñuy jëfandikoo mbi yeeg yooyu quoi waaw ñu ngi ci daal incha di ñaan yàlla rek yàlla def ci tawféex même sama yaay sax nee na moom amoon ay problème tànk yoo xam ne foofu noonu nee na fa ay affaire sur le sang nee na lépp dañ na macha allah loolu moom ab seede ma ci def donte man sama mbir sax waaw dañuy doog a tàmbali rek waaw di taxarlu di xool fu ñuy mujj incha allah waaye sama yaay moom nee na tànkam yoo xam ne jaaxaloon na ko trop nee na sur place la ay affaire xam nga ñaanal ko ci ñaanal ko ci nee na fu moom lépp tawfeex waaw loolu dama ko doon def ci seede rek a baax waaw man ñaan yàlla su ma ñëwee foofu si kàttanu yàlla incha allah gisee quoi waaw yow moom laa gis wóorul quoi maa lay ñaan ñaanal yàlla defal a jàmm ak tawfeex waaw xéwal dikk loolaa nga dakk incha allah maa lay siyaar baax a baax jërëjëf jërëjëf kii moom wax dëgg yàlla. Mhm. sama nitu bopp la. Mhm. yàgg. Mhm. Euh, waa Amérique la. léegi nga jaar ak moom indi na la njaboot gaal yëpp de lii moom sant de ah. waaw xam nga sëñ Cheikh. lu ne fàng kenn du ko jeex. kenn du ko jeex. xam nga kii yow la envoyé man envoyé moom. billahi. kii yow la envoyé. non bari na yu may envoyé léegi la envoyé tout yow yow <coughs> yaayam la yebal mu indi mu indil ko xaalis bi ñuy waxante man ak moom. yaay ji bi mu ñëwee. mu ma man de sama oom yii wax dëgg yàlla mënuma sax dox daanaka bu may julli damay def nii damay def nii ma ne ko mosoo si def intervention mu ne ma déedéet ma ne ko léegi lay deñ macha allah du génnaal yoo génnaale kër gi ak moom ñu defal ko ruqya yi ñuy def rek jàng ci alxuraan boo xamante ni boo ñëwee du ñu làqatu di jàng dara dañ lay wax mu leer mm-hmm. ñu defal ko lu ñu koy def mu yëkkati mu yëkkati ko après ni ko jaabanteel si biir saal bi mu jaabante si biir salle bi mu dem dafa génn mu woo doom ji la lam ko wax yow la ko doom ji envoyé après Souleymane moomu man mosuma ko teg bët mm. après nag Souleymane nag laa doon faj ba moom aussi mu ñëwaat defaat yeneen témoignage moom ci boppam xam nga ci biir euh, vocal bi moom lay wax ni la man nag mm. maa ngi doo commencé dinañ xam man sama mm. affaire fu mu mujjee def na témoignage lu leer bi ñu demee bi ñu demee maa moom ñu toppante toppante bu leer toppante bu leer xam nga mooy lan hmm. mooy li la li ma la jox ni la dee ko def nga dee ko def hmm. sama communication ak yow hmm. mu bañ a dakk nga bañ a xaar ba may nekk fii euh, ngoon gi jot ma naan la ay dégguma la yow tey informé wu ma yow def nga lii def nga lii bu sam booy faju da ngay faju boo fajuwul da ngay bàyyi man bu ma tayelee rek sax dama lay bàyyi parfois parce que dama xam ni li intéressé la taalibe Serigne Touba <coughs> ak tamit maire Maguette Mbow ci Amérique ñu baax ñi nga xam ne que ñu ngi seetaan mm-hmm. euh, waaye ñi nga xam ne que bëgg na ruqe ak lu baax daal bëgg lu sell mm-hmm. euh, kon daal mm-hmm. wax dëgg yàlla Aliou Dieye moom dañuy kontaan ci jëflante ak yow ndax euh, jàmm jin gis ci yow ak tamit yërmande bi nga am ci nit ñi ci surtout man damay bëgg sëriñ yéene naa la milliard mais li may bañ mel na damay dil wala complice wala ànd ci lu dul kii <coughs> tey sëriñ buy def résultat lun la fay xeb naa ko ku dul def résultat lun la fay rek ëpp na moo tax man yërmande bi nga gis ne gis naa am nga ko ci client yi ak tamit dem ba kun war a woo jafe jot la jafe ngay dem bay woote foo toll mm-hmm. moo tax te ku la ci nar a nga ne ko fa ñukk moo tax damay kontaan ci yow. di la ñaanal bu baax a baax a baax a baax ci ni ngay liggéeyee. yàlla def ci barke. jërëjëf parce que am na sëriñ su bari <coughs> wàcc nañ deuxième division. Mm-hmm. am na sëriñ su bari wàcc nañ troisième division. Mm-hmm. am na sëriñ su bari ña nga seefaa xoma yu mel noonu. Mm-hmm. am na sëriñ su bokk moo xam ne ko moom. kenn déggatul kenn xamatul ci lenn la ñu nekk. nit nag li may conseillé sëriñ chaque jour maa ngi koy wax. akum ñaankat akum fajkat. yemal ci li nga mën te sérieux loo waxanteeg nit nga respecté ko beneen bi ay nit yu lay estati di la waxal lu baax <coughs> ay ñu lay tagg ay ñu lay yëkkati mhm. ay ñu naan yaa fi man yab yooyu yëpp mhm. bu mu ci man di doon mhm. nit ñi clients yi bàyyil xel ñaar lan la toppe jàngoro bu wér ak soxla bu faju bu amee pare ku ci fas ko lëre nga fas ko moom mais am na ñoo xam boo leen toppee dootoo liggéeyati maanaam surtout nit yu bees yi léegi léegi façon métier yu bees yi seen bag waxal la lu baax ak nangam ak nangam yu mel noonu métier dafa yomb dem leen liggéey wax dëgg yàlla. Hmm. tudde nañ la jàng yi la bis yi sama bis bi yow laa ko pare naa ngi nangam xeetu dóorkat yi danoo bari. Hmm. am na benn waaye itam buy dóor sëriñ si wax naa leen ku leen ngeen bàyyi ko xel. danaa la ay tubaab laay àndal tubaab yi fële leen di jóge bitim réew lii leen bëgg mais na leen laaj lépp 10 millions de nangam nangam maa ngi ñun si yoon bi danoo paan defal ñu essence sëñ bu ci amul baatin nag ba nax la ci saayir moom mhm. da ngay noppi rek doo ko mhm. wax parce que boo ko waxee rek yaa ngi daaneel sa bopp mhm. moo tax yow leen te bañ a bëggee te topp seen liggéey bàyyi xel njublang yaa ngi fi de <coughs> njublankat yi de te et puis lépp solo mooy li sa métier rek li tax ñu naan sañ diw fonkol lool waaw li des yëpp ay deuxième la for lu ci liggéey bi daal moo ëpp solo dëmm moom tey da nga leen jégal dëmm yoon man du ma leen mës a jégal. doo mës parce que képp ku def lu bon rek. Mhm. man lu may wax korok euh, démb. Mhm. bu may rendi sa waay léegi waaw may rendi sa mu ne ma. sa waay kat petit nga joxoon ma ne voilà. <laughs> <laughs> du ma ko joxoon ah, ma. man man ñi may waxal ah. même même seen waa kër yi sax dañu di daw ah, kooku moom du ma fi joxoñ kenn <laughs> bi ma koy rendi kooku wax ni fat ci ne lu tudd mu ne ma bul ma rendi ma ne ko mission laa nekk gis nga man am na ma amul lu may arrière mhm. tant que ñëw nga ci man ñuy lijjanti li ñuy lijjanti. Mm. muy rab muy mm. euh, jinne mm. muy niti guddi. dara dañuy dem ba jeex bu ñu la waree defal affaire dañu lay defal affaire parce que si nit nga nekk di ko toroxal. te laxat karam naa bani adama yàlla li mu bind nit moo ko ci gën a yitteel. sëñ Cheikh da nga wax sànq euh, lu am solo. gis nga euh, nit ñi. léeg-léeg ñu dem ci sëriñ bëriwuñ sax ay problème ñu egg sa sëriñ ba. yokk fa problème problème yooyu yokk fa. Mm. comme ñii ma ñu nekk France nee nañ ma man ñun de wax dëgg dañ koy gis suñu kër gi. te waajooju la seen waajooju la. Mm. waajooju gis nga bis bu sama yaram tàngee. Mm. dinaa damm laa fam xam nga fii la toog mu ne day damm nekk ci tempérament yu baax. dama ni bis bu ma sama yaram dinaa dammi laa comme lu may rey jinne yi mën leen dagan na ma rey leen. bis bu ñu eggee fenn fi mu gis mu muy faagaagalee nit ñi. te tegu ko fenn. xale bu ndaw nee nga yor nga yor oto yu baax da ngay def 32 pays voilà mën nga def lii mën nga def lii lu ñu wax nga ni mën nga ko yu mel noonu. Mm. bis bu sama yaram tàngee te bàyyi lu muy def nit ñi. ñuy ñëw ci man noonu rek di ñëw ci man di laxatu. Mm. dinaa ko defal affaire. na góorgóorlu. Mm. mu jaamu yàlla. ñun li ñuy wax képp kuy def lu baax taxoo ñuy wax. na la ngay def lu baax loolu continuer ci nga sax mais képp kuy def lu bon jëlal loolu nga def ko. wuy ma nga def ko ab bind jàpp ni yow la ñuy waxal. Mm-hmm. amuñu si lu ñuy calculer. Mm-hmm. lu ñuy calculer amuñu ko si def lu baax moom moo ñu war tey jii ñun bu fekkee nit ñi day ñëw en masse di ñëw di ñu wax affaire yu mel noonu. dama ne dafa nekk yitte ci ñun pour ñu wax ko fii. Oh. nit ñi dégg ko moom si boppam mu dégg ko. Mm. parce que indication yi leer na xam na ku mu ñu waxal ak ku mu dul waxal. Mm. dafa leer nañi. tu vois donc vraiment euh, benn benn cas. Mm. moom laa la bëggoon ergué euh, aussi. Mm. mooy médecin yi tamit. Mm. nañuy def attention. médecin lu ñu mënul ñu xam ne fii wax du ma wax ne Afrique la de. mais monde bi la. Mm. dafa am loo xamante ni ñoom mën nañ ko am yoo xam ne mënuñu ko. fu juwee waaye jugee rek bu ñëwee nga ne ko bu bu bu la bu la nee euh, lay métti fan la ngeen fii nga ne ko estomac. boo bindal ko ay médicament dara sottiwul nga bindalaat ko dara sottiwul muy gën a métti mais ne ko dama nga seet ñi man ñi nga xamante ni ci alxuraan la ñuy yëngut. Afrique nekk seen Cheikh koo xamante ni. Euh, Dicko xam naa du wax dara ci tur bi mu tur bi ma tudd. waaw Dicko Dicko Alioune Dicko. sama xarit la mm. dama ko dama ko doon am yu ma ko doon defal Amérique la nekk. Mm. te rek moom mooy envoyé ay vocal. Mm. ba mu gis li mu ciy gis mu boole ma ak xarit mu xaritu benn bakkanam. Jabel tamit bu ma ko tuddee du wax dara. Jabel Jabel Guèye ma am lu ma ko defal. bi ma ko defee li ma ko defal pare moom tamit mu boole ma encore ak keneen koo xamante ni. Mm-hmm. Euh, jarbaatam la mais kooku bi mu ñëwee kër gi li tax ma wax affaire estomac. Mm-hmm. dafa ñëw ci kër gi ma ne ko li lay metti fan la fan koy gën di yëg. Mm-hmm. mu ma mën daal samay affaire yëpp dafa am blocage mais daal sama yaram fii daal laa yëg daal moom. na ma. ma jël jaaro bi teg ko fa. teg ko fa ma ko tegee ma ne ko da ngay gëmm bët yi rek nga di ko déglu. ba si ne ma li may yëg de wàcc na fii. ma ne ko dégluwaat ko li ma yëg déplacé wu na fii mu yéegaat na fii non muy commencé di diis. Hmm. ma teggi sama jaaro ma ne ko estomac la wala du estomac mu ne ma ah muy ngi bougé ma ne ko estomac day bougé li toogoon ci estomac bi. muy bougé. muy wul ma téye ko am lu ma ko defal si ruqya añ jot ñu bokk añ maag moom mu ne man tey dafa am lu ma jaaxal ma ne ko lan la xam nga ay tur nit laa la tuddal fii. mu ne ma man ñetti kuddu doon ma ko weesu ma ne ko añal ba suur maa fee lañ togg mu ne ma lu ma si jaaxal tegedege bi moom gën a jaaxal man lu am tegedege man daaw ma ko lekk ma ne ko añal bés bi ma jënd boisson mu naan ba mandi hmm. jug dem dara santiru dara xoolal dama la hmm. wax ni la loo man da ngay wax ni mën naa hmm. bu fekkee médecin nga dangay ngay intelligent taxaw fi naan ay crise d'épilepsie <laughs> taxaw fi naan ay estomac boo yëngalee nit ci deux rendez-vous trois rendez-vous ci méricament yi ñuy fajee estomac dara sotuwul nga defal ko ay rajo gi ma xam dara sotuwul mu ne ko sa demal nga xool ñu nga xamante ni Afrique lañ nekk demal ci ñeneen te mm. loolu nekkul moom dong la dafa am keneen koo xamante dafa ñëw ak ay daw la ñëwee kër ga jour boobu mm-hmm. dafa doon parce que doon préparé volam ndeysaan Abdou Dieye la tudd mm-hmm. dellu na dellu na je pense Italie xaw ma Espagne dellu na ba ba ba egg bi mu ñëwee Abdou xam naa tey bu mu mm-hmm. <coughs> moom tamit la même chose la wax fii daal mooy mel na ne la moo yëkkatee mbubb mi moom tam ma fekk fa lu ma junni ndomba ma ne ko Abdou baal ma nag <laughs> ma ne ko Abdou léegi nu def ba taal sa téere yi mu ma ah faj ma boo ma fajee ma taal téere yi de sol kii bi. Ah? waa moom biir wax moom wala. kookan la. mooy fecckat bi sol yére Ibadou yi temps gisuma ko gisuma ko mais lu aju si fecc moom aju affaire seytaane la kooku moom mënul nekk ibaadu hmm. waaw lu aju si fecc moom aju non ah. déguisement bi la jël utiliser ko quoi <coughs> non xam naa du warul nekk ibaadu moom wax dëgg yàlla non non non du dafa leen di tooñ waaw waaw tooñ bi daal dafa leen di tooñ xam léegi nit ñi ñu bari dañu bëgg a siiw mhm. ba façon eh, style bu ne dinañ ko créer quoi c'est ça c'est ça moo tax mën nga dajeeg xaritu yàlla mhm. ci côté baar ba mhm. mën nga dajeeg noonu yàlla ci côté jàkk c'est ça kii sàggan na ba sori fii kii nar naa farlu ba jege fee mhm. kon ku ne rek li nekk sa xol muy lu baax yàlla na ko yàlla yombal amiin bu dee lu bon yàlla na ko yàlla jafe amiin di wax nit ki bul bëgg siiw boo defee toj toj mhm. bul bëgg siiw euh, ba jël <coughs> lu toll ne xam tooñ nit mhm. yaag nit la tooñ yàlla yàggel mais tooñ lu toll ay diine l'islam di influence ay nit euh, am na ci loo xam nag que daray àddina jaru te siiw yii nii amul njëriñ siiw boo xam loo siiw siiw yaay lijjanti sa bopp yaay dugg ci amul njëriñ daal ba tax nga def loo xam ne que da nga ko rëccu ëllëg daal. Mm. sëñ Cheikh. dina mm. am fu may daanele. Mm. <coughs> xamante ni. waaw mënul ñàkk tudd ko li tax mooy. Euh, xam naa prochaine émission. dinaa def extrait boobu. ñëw teg ko fi. waaw. Euh, ab sëriñ la bu siiw. Euh, sama sama responsabilité li may wax sama responsabilité. waaw sëñ Cheikh. man mi man maa ko man maa ko man maa koy wax. xam nga li tax ma koy wax mooy. dañoo war a jàngi. ba xam dara ci alxuraan bu fekkee alxuraan bi ñuy wax. Mm. doog war a toog ci nit ñi di di di di di di yaatal ak di wax ak di faj. Mm. xam nga dama ko déglu mu ni yaa maxcharal jinni wal ins. Mm. in waxee ko waxee de dinaa dinaa indi extrait bi fii. na ko tuddee balaay ba ma ko déggee dama wane ginnaaw in istataatum. an min axtaari samawaati wal ard fanfuzu la tanfuzu na la xam naa li mu jàngul nag moo tax xam nga bu nee fanfuzu rek day nooy nga ni la tanfuzu la tanfuzu na la sëriñ bi la tanfuzu na illa bi sultaan fa bi ayi alai rabbikuma tukazibaan gis nga même boo yoroon doon utiliser ñaari aaya aaya yooyu na mokk ngir yàlla te nga dimbali nit ñi pourtant ki ko yoroon micro bi moo naan ah walaay mokkal moo mokkal moo neex te xamul ni aaya bi li muy gàtt-gàtt sa waa yi nga tiim def na si ñaari fóot <laughs> wallaahi. ci baas la. waaw ci base la ci ci base. ci. kii jottali li nga wax noonu am bu siiw ah yooyu diw mu sëñ Babacar bi damay bañ a tudd rek mais bu mm. ma waxee loolu rek xam ñëpp nañ xam. Mm. diw mu sëñ Babacar bi xamul mm. dara. bu dee alxuraan moom ah, xamul dara xam nga kii nu mu tudd encore euh, euh, aaya dama koy fàtte su euh, nuun la nekk moo nekk si suuf. waaw si suuf moo nekk si suuf. wax nga ko léegi aaya bi. wax bi. dama koy fàttali mën naa ko fàttaliku léegi. ci suuf euh, Fabi ay eh, euh, Jumaati. nuun la. nuun wal waaw wala xamari. Euh, dinaa ko fàttaliku ah. dinaa ko dinaa ko fàttaliku dinaa ko fàttaliku. dinaa ko fàttaliku mais gis nga boobu laa njëkk dégg mu mu mu wax ko. wa iyyakaadu lazina kafaru. wa iyyakaadu ci tabaaraka kii. wa in yakaadu su ma juumul foofu la nekk mm-hmm. wa in yakaadu alladina kafaru la yusliunaka bi absaarihim lamma samihu zikr wa yaquluuna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrun lil mais yow wa in yakaadu boobu mm-hmm. jour moo ko njëkkee dégg mu wax ko damaa tiit ab aaya la mm-hmm. mais kooku nee na ab sëriñ la bi ñëpp ah ko diw diw diw diw te in yakaadu boobu boo ko dégloo say yaram da ngay bëgg wàccu wàccu laa wax ci aaya yàlla bu mu téye noonu damay leen di wax ni leen nañu dem ñu jàngi. Mm-hmm. keroog dégg naa fi ku fi tari fii fii la ko tari wala asri damaa tiit. wala asr mm-hmm. bi mu ko taree pare damaa tiit te nee na ab sëriñ la moo nekk diggante fii diggante fii dama lay ne alxuraan bii du fowkaay. Mm-hmm. ñoom li ñu def nii du ndam. nekk si nit ñi di leen gis nga mën a. Ah, ku ma jëflanteel euh, mu am la ko naxari. na ñëw mu wax la ko. te ñu indi jaar jaar du amee mukk mukk ndam ci man mënul nekk. Mm-hmm. parce que ku ma jël man dinaa def àq bi ci nekk dinaa la jéem a topp sama mm-hmm. kéemti lay kattan. macha allah li ma war sama diggante ak yow. Mm-hmm. mooy am ay information aller retour. am na si yoo xamante ne dañuy naqati deret dañuy kii benn benn yu nga xamante ni. Ah. leen di da di faj ñu mel ni sax yow yaa yow yàlla leen di. nu mu tuuti man daal li ma xam. waaw mais ñoom docteur Wade ak ay yu bëri bëgg kontaan nañ. yal na yàlla bëgg mu ngi témoin man man gis nga coowli coowli <laughs> ay euh, man triché wu ma de yàlla ngi ñuy suturaal dun musuñoo ñaan kenn len musuñoo leb kenn len musuñoo dimbali ko len yàlla lan doyloo euh, bàyyeeku suñu bopp nag di def dëkk moo waral liggéey bi kafuñu ci caaxaanuñ ci ci kun xas ban ne gis na lii rek gis nañ ko buñ ko gisatul ñu noppi buñ ko dëkkee gis ñu continuer ci maa ndox fi nekk cooli cooli cooli cooli Tektal TV moom lu fi waay di wax lu leer la lu waay di jëf lu leer la man jërul nga may wax ci lool nag gis na tey lu bari lu xew sa kër dinaa ko xam. parce que tey bu ma indee nit. toog benn trois semaines. ah wax dëgg yàlla lu bari lu indi ci liggéeyam moom. bu dee jàmbaar la dinaa xam. bu dee des na dinaa xam. moo tax sëriñ moom li ma për solo teg ko ci yoon rek te dëkku. mopp solo lépp. man daal loolooy sama mbir. parce que jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. mooy xool noo mën a jëriñu nit ñi ci xam-xam te bañ leen lor. sëñ Cheikh waaw. Euh, waaw fi mu nekk nii. Mhm. man tey sama xol set na si émission bi mhm. moo nekk émission bi ma gën a kontaan. parce que li nekkoon sama xol yëpp yebbi naa ko. muy noonu amul des. waaw euh, <laughs> ah, xam naa ni moom ah man nit ñi. comme docteur Wade est-ce que jàpp ko mi ngi nelaw du doon du demee noonu de. ñett ñi bàyyi machine mi ngi nelaw ay rab jàpp la ñett ñi. non. jàpp leen de damay delluwaat si waa ji yàqoon sama kii bi de sama sama sama numéro bi. sëñ Sow eh. sëñ Sow daal xam naa ne moom la bu fekkoon doon affaire yi ñëw na jàpp moom la moo tax mu jaxase woon kii bi numéro bi waaw ah. Mali la waaw Mali la boobu woon président ba xam naa <laughs> moo de Afrique waaw xam nga li ma ci naqaru rek lenn la waaw dañuy jaawat la yàlla ñu xamul yàlla ñoo ciy wax mm. xam nga d'accord mooy ah mm. gis nga imma shakiran wa imma kafuran mm. sëñ Cheikh kenn forcé wu la demal seetaan si football waaw kële kenn forcé ko bu ko neexee mu toog këram bañ seetaan mm-hmm. mais boo dee bay wax ci football bul tudd yàlla bul tudd yàlla imma shakiran wa imma kafuran xisbullahi xisbu mhm. seytaan doo fekk beneen xisbu si kaw si alxuraan xisbullahi mhm. humul muflihun xisbu mhm. seytaan humul xaasiroon dafa leer amul ñetteelu xisbu yàlla mënoo mënul bugg football parce que football amul lu nekk ci moom lu nga xamante ni day dellu si day dellu si jaamu yàlla wala muy day dellu ci ah mais ku mu neex ni ni ñu fi yàlla wàccee aleykum li nga neex nga def ci bu ko jàpp mu ko naan non yàlla daf maa wan yëpp yàlla weesuwul loolu. Mm. yàlla lu mu lay wan xanaa seytaane moo la ko wan. Mm. man daal loolu laa si jàngat mooy que ni ku dem bay wax da naan man fii laa féete ab sëriñ laa daal man du ma wax ci football. Mm. wala nga ni daal man daal maag ñi la ñoo ànd. damay wax nga bañ ci tudd yàlla. tudd yàlla boobu laa ci bañ. parce que c'est pas normal yàlla duggul ci football duggul ci bëree. affaire yu nga xamante ni yu nga ñàkk fula ñàkk fula yu nga xamante ni wéqabal di ci topp am mais tudd ci yàlla moom yàpp yàlla weesu ko. côté boobu danaa ci wax tamit oh. sëriñ si ngeen oh. bàyyi xel bu baax vaar ak tamit ngeen bañ a nangu yenn site internet yi di leen sacrifier di liggéey ci yéen wax loola toj toj ay fexeel mu tàng nga wax lu rëy. c'est triste yu bari. c'est triste loolu ëpp na. am nga famille quoi am nga famille. am nga famille bul sacrifier sa bopp nga bañ a rusloo sa famille. nga bañ a sa nga bañ a rusloo sa famille. Mm-hmm. di naan ay duñu dem fii duñu dem fii te yow xamoo ci dara. dara xamoo ko et puis fajoo ngeen bàyyi xel leen. ab sëriñ ne Modou Lo diwoy bëree diwoy daan bu daanee bugut ak faj soxla bu daanuwul bugut ak faj soxla Sénégal day gagné mu gagné bu daanuwul moom mu gagné mu gagné bugut ak faj soxla. ngeen bàyyi xel leen ñëpp xam nañ ne Gambie ak Brésil. lu Gambie doon doon jàmbaar ci football bu dajee nga ñëw ne Brésil lay gagné bu <coughs> Brésil gagné miracle amul fa ñu waxante dëgg. Brésil ak Gambie tam bu ñu dajee bu ñu soog di commencé zéro zéro la ñu bind ci télé bi. mënuñoo naw Brésil ba bindal ko un avance mënul nekk. kon nag diwee daan mu daan élection yi diwee gagné mu gagné man nekkuma ci yooyu man jàngoro mu wér soxla mu faju sëriñ buy laalale asamaan seeg suuf si soxlu ma rey ginaar ak gëléem ak yor jaan ak gaynde yépp sama yoon nekku ci li ngeen séq na ko def yeewu leen tegtal day taal xel yi de ñun ay wax basi nit mën na réussir communication nga ñëw dara nekk fa nit mën na juum ci communication nga ñëw dara manqué fa ay wax kese du ma ci basé wax bu ànd ak jëf te kilifa nag waxam day dëgër wax bi am na nam ko waxee mu am bu dee wóoru ko mu wax mu bañ a wax. wallaahi wallaahi lii laa gëm mais Sénégal day gagné mu gagné. bu tax ba wóolu sëriñ loolu la dal yaa ko teg sa bopp. wallaahi yooyu yëpp nekkuma ci. ay du gagné day toog ak day keeg ak élection yi am na sëriñ xam waxuñu woon élection yi du am. Mhm. yi amul. Mhm. yooyu dara nekk nit bu leen nangu si teen dara di sacrifier leen wallaahi wallaahi ñun yéen tiit nekku nekk dañuy def tegtal àll yu jëy <laughs> tegtal diw tegtal diw nga dugg xool lu fa nekk yow la mais ay titre yooyu doxuñu ci de nit yi yeewu leen ngir yàlla hmm. ay wax mu am yàlla rek a man loolu nit nag war ngaa fexe nag booy wax dara 99 pour cent nga njort na lii nga wax ni loolu nar la li des na kàttanu yàlla la mu kii léeg-léeg tam seen nit wax toj toj bu rëy pare ji boole ci insha allah nga wax mu ne ci kàttanu yàlla laa waxoon déedéet naxaate rek waaw da nga jël engagement nag bañ a wax wala nga noppi naxaate rek waaw naxaate rek sant ci ak tàggatoo tu gërëmal ku la neex euh, sant naa gërëm naa sama famille mhm. ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum mhm. sant naa leen gërëm naa leen waa Tektal parce que fii sëñ Cheikh comme ni ngay waxee nii. Mm. man lecture boobu laa am ci parce que mm, naxante wuñu waaw dañuy dox si dëgg naxante wuñu non naxante wuñu parce que man aussi tamit. Mm-hmm. am naa folo ji doy nii tey jii. Mm-hmm. man wax dëgg-dëgg yàlla waxloo ma ay caaxaan man mm-hmm. du ma ko nangu. te doxoo ci loolu. ñii ngay àndal aussi tamit man tamit nawloo naa leen. parce que wala wax dëgg yàlla maa ngi maa ngi duggante ak ñoom. moo tax yal na yàlla def yi fi jëm ci kaw dara bañ ko téye sant bi nag hmm. non tegtal sama affaire bopp la waaw sama affaire bopp la waaw eh, eh, dafa am koo xamante ni ma tudd turam hmm. mais man fu mu ko mën fu mu ma di déggee na jàpp ni sant naa ko gërëm naa ko hmm. parce que même combat bi la mooy kooku dajale woon korog sëriñu xotombole yooyu deses ku jigéen kooku waaw parce que gis nga xam nga lu tax. Mm-hmm. am na fula am na fayda am na fit. man korog bi may dem bi may laa tijji sama portable da mu gis affaire bi ma ne comédie bi de dinaa ko seetaan. gis nga bi ma ko seetaanee. Mm-hmm. effectivement ni mu la doon tuddee ay escroc. kooku kooku gis nga jigéen bu mën góor la. Mm-hmm. jigéen bu mën góor la parce que am na góor yu doon toog foofu du ñu tuddee escroc dañuy yaakaar ni ñooñu ay dara lañ béy. mais xoto mboole yu te duñ ci man dara ñu taxaw di la xool mënaluñ ko dara ñu toog di ko xool ah, mënuñ dara jël ab cigarette yow def ko def ko ba mu niroo cent euros nga jël ko taal ko tuuti ci di naxaatee ah? ah ci affaire yu def dof loolu ba mu moo tax te nit yi yi comprendre c'est pas normal ça waroo ko invité waroo def mais moom moo xam contexte ba mu ci Bijou Ngoné yàlla ko yàlla jàmmal bu baax waaw sant naa ko man man sant naa ko gërëm naa ko te bu dajee genre mel noonu wala mu dajoon ak man ma def lu nga xamante ni normalul foofu la war a jaar. foofu la war a jaar parce que dëgg rek. dëgg rek dëgg rek moo baax te dëgg mooy tax nit ñi avancé. te nit bu nangu sa métier kenn du ko foowee quoi. waaw ah, muy noonu. waaw léegi parce que nee leen joueur buy football ci terrain xaar yàlla <coughs> ak Messi wala Cristiano Ronaldo joueur lañ tudd rek boo ñooy tolloo même lettre yi mais li ñu représenté boo wuute na am ñoo xam mën nañu wuyoo Serigne Bab Serigne <coughs> d'accord ñëpp koy bokk mais li ñu représenté doonul Serigne bari ñu jàppale comédien yooyu yëpp nit ki na koy moytu. moytu leen buzz moytu leen yéen site internet ñu dugal ci kii wax njëriñ man nee naa leen kenn ku man ñaar yu te yem ci billaahi bu ma neexee mën naa ci taxaw nga doon millionnaire millionnaire yow sérieux ci rek te ko moo tax jël ngay man lépp mënal li nga mën rek te sérieux di nga am lu ne bu soobee yàlla kon ko yaa ngi sant nga gërëm ñëpp daal ah. waaw sant naa ah, tey sa kii bi dafa changé mbaxana bi dafa sol mbaxana or la wala. mbaxane bi benn benn tukulóor moo ma ko la ko jaay alhamdulilah sonn trop nag parce que am ma du sonn mbaxane. waaw naa la c' <coughs> fois boole ko nag xaw naa sot tuuti tey quoi. Ah, mais alhamdulilah. commencé nañ ko commencé nañ ko waaw daal yi de. baax na <laughs> mel ni yu bëri la may jox. Ah, ah, <laughs> alhamdulilah kër gi daal neex na yàlla yàlla def fi tawfeex. ko <laughs> mais moom su ma ëpp dafa xibaar moo tax. kontaan nañu bu baax a baax xibaar loo ci mën ko baax a baax ni mu xibaar nii. Ah. ñi nga xam ne que jigéen bu ñu gis jël sa numéro. waaw ah. léegi mën nañ dem ba doxaan ko xam ne. Ah, bien sûr. ah bon si parce que man <coughs> lu may wax rek lu ma gis la. Mm-hmm. dama am cas waaw am naa cas bu xamante ni. kii ki ko indi. Mm. nee na ma leer na ma ni kii moom nitu guddi la. nitu guddi la ma ne ko la ma tax bàyyi ko mu ne ma dama koy téye si kanam parce que affaire yi mënuma ko réglé sama bopp fi mu nekk nii. Mm. te damaa bëgg mu may jàppale ci xaalis ba léegi. muy jàppale mais gis nga li li may wax yëpp révélation ci ci waa mm. bu ma la waxoon fii da ngay jug dem sa yoon. te muy ànd ak moom. muy ànd ak moom waaw. ñooñu xam ne kii dëmb la pare muy kontaan ak moom. <coughs> li ma wax ci moom. Euh, nitu guddi spécial mooy mu ngi waaw ah, ma nag léegi dama la bëggoon wax comme Sangar Baye Mass yi. waaw. kooku ay kooku ay si Abdou moom. kooku ay réponse bi Abdou Khadre. baa ngi noonu. waaw waaw léegi dama la bëgg woon ne la kuy doxaan ku ne. Ah. xam nga góor ñoo xam ne xam nga fii Sénégal boo bëggee jigéen ba ëpp danaan wérul. waaw ah. ku yorom nekkul ci jigéen tam ñu ne wérul. waaw mais léegi ku jël numéro fu ne intercepté. waaw Baye Mass boo jëloon téléphone bi intercepté di nga gis sama <coughs> nangam yoo xam ne que. <laughs> ci mbedd bi la jëlee ñoom noonu. xam nga. xam naa. léegi moom bu doxaanee gelu dëmm. bu demee seq moom yenn yi. waaw même bu dee préliminaire yeeg yooyu. waaw mën na ci am problème. ba na ci am problème bu leer. Ah, ah. parce que ñoom gis nga tey lu ma la mën a wax te ci ay firnde laa la koy waxee. Mhm. mooy direct. gis nga mu ngi mel ne ñu toggoon fii ginaar ba mu dugg la. xam nga ah. ni ngay xiife ak yàqamti see laal. waaw dama lay wax ni la direct. c'est-à-dire nit ñu jaxasoo ak yow. Mhm. noonu la leen direct di xeeñee. maanaam si direct la ñuy dund. moo tax préliminaire yooyu ngay wax noonu. mën nañoo rocc rek si yow lu nga xamante ni dootul duggati si yow abadan. parce que femme bi ma lay wax nii bu ñu fi amoon lu ñu fi mën a tënk ci moom rek. Mm. xam naa ne xaju fi mais di nga gis loolu que ñoom tey jii accolade rek bu ñu ko defee mën nañu rocc si yow direct yu bëri. Eh, mais ñoom ñu leen ko xàmmee kon. nu ñu leen di xàmmee. non xàmmee leen jafewul yooyu. Mm-hmm. xàmmee leen jafewul. dama la dama la jox dama la jox benn tegtal boo xam moom moo ma ko wax. waaw femme bi si boppam nee na ma dafa ànd ak moom ñu am fu ñu ci Louga bi ñu eggee ci restaurant bi ñu wàcc toog nee na ma dañoo toog ci restaurant bi waa mu muy jéem a nëbbu boppam mais dañoo jékki-jékki nee na dafa jékki-jékki mu remarqué bët yi xonk cur mais bi mu ko xoolee rek waa ji daal di kii quoi commencé ci naxasaale quoi xam nga yàlla bàyyiwu leen noonu bu ñu toogee ak nit ñi il faut que mu am ay éléments yoo xamante ni da ngeen di gis beneen bi mooy euh, bi mu defee loolu ba bët yi dellu siwaat rouge euh, rougeatul nee na mu toog moom tuuti mu gis ni dafa déréglé woo mm. gis nga nit guddi noonu la mm. boo toogee moom day déréglé woo gis nga jinne ni muy solo nit ba nga xamante ni tey bu manifesté woo xam ne lii jinne ji mooy wax jinne ji moo taxaw hmm. nitu guddee la même chose boo ko seetloo tuuti rek moom day déréglé wu déréglé wu moom la gën a aay c'est-à-dire nekk fii naan nii ak di làmbatoog di kii pour bëggu effacé wu ba dem yoonam bu dajee nag ku nga xamante ni leer na ko ni kii kàngam la du ko xool nii lay def waxoon naa ko fii oh. du jàkkaarloog bët mukk nii lay def hmm. waaw du ko xool mukk parce que affaire bi man léeg-léeg may teggi euh, jinne ci nit hmm. mu dugg fu nekk bu yëf yi dëgër dama koy xool ma mu xool ma hmm. bu wàcceewul bët yi rek léegi mu yuux parce que fii dafa am lu fi nekk boo doon wàccee jinne tamit hmm. euh, am na jinne yoo xamante ni boo yeexee rek dañuy dem bàyyi la fi mais boo tijjee bët bi hmm. dootul demati mukk boo tijjee bët bi nii ba mu xool nii du demati du demati mukk da koo téye foofu rek ba defal ko li nga ko defal waaw kon daal ngeen def attention bu baax a baax a baax lu ne nga dugg ca nag fu ne nga lekke fa ngeen moytu ko bu baax a baax a baax gërëm nañ euh, ñi seetaan Tektal TV ñëpp Ousseynou eh, Ly day dëkkee seetaan te du bàyyi eh, xarit dëggantaan la Pierre Isard Ousseynou eh, li mi ngi Allemagne Cologne équipe ba FC Africa Cologne ñaani ja Allemagne Nogoy Diop Allemagne Berlin Dieynaba Diabaté Allemagne Mamy Danfan France Paris Sayer Fall Espagne Sayer mi ngi partagé rek Alaaji Ndiaye Allemagne Alaaji Ndiaye moom tamit day partagé Tektal TV rek Malick Jité Ngaye ma Malick Jité moom tamit day seetaan tegtal bu baax a baax a baax soxna si da doon anniversaire sax fan yi soxna si Assou moom mu ngi Pikine ca Ngaay ma jaajëfal nañ Fat Diop Amérique Fat Diop Amérique <coughs> xaritu Aliou Dieye ñu ngi bu baax a baax <coughs> di sama conseil technique di sama lépp euh, Mor Sambu Amérique hmm, waa Amérique gërëm na ñëpp ah Ibou Dieye Espagne euh, Tamsir Diouf Maroc nga xam na que day partagé fu ne ci àddina bi ñi di abonné Tektal TV gërëm nañ ko bu baax a baax gërëm nañ ñëpp ah euh, yoon bu mujj ci biir émission bi numéro Ali Eva Ndiaye Traoré semis bi moom moo ko indil cadeau waaw Eva Ndiaye Traoré moom ku baax la bu baax a baax Penda Fall tamit Espagne gërëm nañ ko bu baax a baax a baax gërëm nañ euh, ñëpp ñi nga xam ne que ñu ngi bëggee Tektal TV bu baax a baax numéro Aliou Dieye 77 263 88 48 77 263 88 48 beneen bi 76 171 74 77 76 171 74 77 Aliou Dieye euh, nekk ci Tivaouane Peulh nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla mu xam tëlewul dara te mën na lépp sama oto beeg ay ñi ma doon tere Dubaay yépp léegi Ousseynou lii nee na naa commencé jéggale di baale mm. bàyyi yenn yi te farlu rek mm. te ñu wax ne daal nit ñi na muus xel nit ñi capable tout bàyyi ko te xam ne yeewu daal bu baax a baax a baax a baax a baax di war ne election yi fi jaar rek jar na nag nit ngeen bàyyi xel baax lan mooy yëg nit te fonk nit jàpp nit ñi di nax nit ñi ba nit ñi wëlbatiku di la nax ku ci dee leen wuyu téléphone yi te itamit ngeen sant maire yi lu man maire yi ngeen di tagg fii ñetti at ngeen commencé saaga leen nit ñi tamit war nañ san suñu jikko de kenn mënul xam luñ bëgg parce que yow boo dëkkee ci dëkk lu bokkut xaalisu commerce loo am ñu indi lay boo ne kii ñu ne Sadio Mané gëj ci dëkk bi nga mair bi du fi fanaan ah kii du waaye kat bi day ndamoo Pikine mais gëmu ko xeet boobu tamit dina sant nit ñi lu man nit ki sañ naa dëkki Almadies sañ naa dëkki waaw dëkk fenn araamul nag ay gëm la nga war a dëkk ci force nag bu leen ko teg nit ñi lépp solo li ngeen seq nag mooy liggéey bu baax a baax kuñ ci fal nga farlu gërëm eh, Cheikh Gueye eh, Ibrahima Ndiaye ak ñëpp daal koo xam ne am nga ndam yàlla defal la jàmm bu baax a baax te ni jël exemple ci ñuy wax lu rafet di ko fësal ñi wax lu ñaaw buñ partagé buñ amee nañ leen fàtte foofu ndi di kaas naan ah kii wax na lii pare fu ñu jëm nga partagé ko day mel lu bon de la soxal équipe bi nga xam ne la moom docteur Wade bu Casamance nekk ci borom këru Ganga Wade papa Mimi Wade euh, est-ce que bëggul takk ñaareel fi bii mas ah euh, nu mu tuddati Cheikh Omar Dieng moom takk na ñaareel euh, ca Touba Cheikh Ndiaye moom moom fit bi day mas ay dara takk na ñetteel kon lee mu war a ñeenteel sama mag la gërëm na tamit euh, Taaxa Diop Amérique euh, mot joor waa Kër Pape Taaxa ñëpp gërëm nañ leen bu baax a baax a baax ak kan Ndoy Belwañ France euh, gërëm na ñëpp bu baax a baax ñi nga xam ñi ngi bëgg a takk Baye Mass bëgg na takk soxna mais neen daf bëgg xéwal gu mag nee ñu yor ñi la bëgg yor ko takk daal waxul social cas solidarité la gën a soxla Petit Sow mu ngi waaj takk nag mais defe naa gisagul la ko doy de xam naa tubaab la bëgg bàmba lijjantil ko nag lijjantil petit tubaab bu almaan ak bu yor waxuwul wala kaan ak tubaab de soxna may Diop ci réalisation bi sëñ Fallou Mbacke Diop gërëm nañ ko soxna Fatou Diakhaté gërëm nañ ko Ndiaye Cheikhou gërëm nañ ko studio soxna may Diop la nekk Tektal TV ñun bu neexee ay caméra yi ñuy wër def tourné fii bu neexee tourné fële waaw ñuy dem fu ne di yóbbu àllijee boo Europe hmm. def émission muy daaneel tubaab bi incha allah bu soobee yàlla bu baax a baax a baax gërëm nañ ñëpp kontaan nañ xewal dikk loraa nga dekk àllijee kon fàtte kenn ah jërëjëf jaajëf Tektal TV ngeen abonné télé tollu ko fii jërëjëf